show. rajo bi di Afia FM Dakar seen émission fàttali fësal yéene dalal monsieur Moustapha Diakhaté ancien président du groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar ci samedi ji lay am yemoo fukki fan ak ñett ci weeru juin li ko dalee ñetti waxtu bu fekkee fanweeri minute jàpp juróom soxna Aminata Diop fësal yéene leen ko présenté ñu nar a waxtaanee jàngoroy coronavirus bi ñetti weer yi mu def ci réew mi impact yu mu def sur le plan économique ak sur le plan sanitaire lay amee sur 93 point 0 kon nag mbokki auditeurs yéen it mën ngeen indi seen i xalaat jaare ko ci bu mu jokkoo bi di 88 628 05 05 88 628 05 05 Afia FM du musa tay yi di leen gunge ci xeex jàngoro bi di Covid 19 ngir ñu mun ko daan. a aousubillahi min asheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ni yéen safoo rajo bi di Afia FM Dakar rawatina ngeen taamu émission bi di fàttali comme ni nga xamante ni noonu ngeen ko baaxee di ko déglu ci samedi bu ci nekk ci waxtu wi bu jotee fii ci studio Jules Bor tey jii nag yemoo ko euh, le 13 ci weeru juin euh, ñu daal di fësal yéene rek dellu ni ñu ko doon defee waaye balaa boobu ñu daal di nuyu di ziara bépp kilifa diine bu nekk ci réew mi wala nga nekk tamit kilifa aada di ñaanal yàlla suñu borom ñi nga xamante ni ñu ngi tëdd ci lalu hôpitaux yi yàlla yëkkati leen delloo leen ki seen sago eh, jàngoroy coronavirus bi yàlla suñu borom jëlee ko fii di nuyu kilifa kër gi di soxna Penda Ngane Sougou Euh, ak euh, mboolem équipe bu Afia FM Dakar 93 point 0 tey nag ñu daal di am mbégte contentement di dalal ku nga xamante ni kenn dootu ko présenté ti fii ci euh, àdduna bi yaakaar na ni mu di président honorable monsieur honorable Moustapha Diakhaté bi nga xamante ni moo nekk ancien président du groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar honorable ñu ngi am mbégte ak contentement Euh, si sa teewaay fii ci Afia FM Dakar 93 point 0 immeuble Indagraf Seya studio Jules Bor di la nuyu nii l'islam di la wax salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatuh. soxna Aminata maa ngi lay gërëm d'abord ci invitation bi nga ma invité di la fay di la nuyu di nuyu ñi nga bokk liggéey bi yëpp di nuyu ñi nga xam ne ñi ngi nuy déglu te ñaan yàlla mu baaxee nu ba waxtaan wi ñu def ko ci dëgg tam jur njëriñ. ci jërëjëf am na solo rafet na li nga xamante ni tey it euh, moo waral sababu jotaay bi te euh, sababu honorable daal di teew si fii moo di jàngoroy coronavirus comme ni nga xamante ni noonu la ko ñëpp xamee bi mu duggee ci réew mi ci le 2 mars boobu tey euh, def na fii lu tollook ñetti weer ak fukki fan ak benn ci tey jii. boobaak tey it bëri na loo xamante ni jaar na ko fi mu def ko fi ci li nga xam ne ay dégâts la di tëral ay doomu aadama am ci ñu ci bari tamit euh, faatu nañ ci ñuy ñaan yàlla suñu borom mu yë yëggal leen yërëm leen xare leen àjjana ñi ngi tëdd tamit euh, jotaguñu wér yàlla suñu borom wëral leen waaye ci kaw noonu tamit laal na ci secteur yu bëri ci wàllum économique mi tey jii nag euh, ci diiru ñetti weer boobu noonu mu fi def loolu la ñu bëgg a taxaw def ci ab seetlu def ci ab càmbar honorable diiru nga xamante ni loxo bi def na ko fii ci réew mi euh, waaye gis nañ bi mu fi duggee ki nga xamante ni mooy état bu Sénégal delloon euh, na li nga xamante ni mooy ay stratégie maanaam teg ay plan wam yoo xam ni moom la fësal yéene woon a jàkkaar ak lii di jàngoro bi pour mun ko daan euh, nan nga gisee yooyu nga xamante ni mooy stratégie yi nga xamante ni moom la tegoon ndax apprécier nga stratégie boobu wala yoon boobu jàppoon nga ni baax na pour ñu mën a xeex Covid bi ndax boobaak tey teg nañ ko fi waaye dafa mel ni delloogul ginnaaw ba tey Euh, jërëjëf euh, soxna Aminta boo boo booy gëstu coronavirus bi dafa bokk mooy mën naa wax mooy ñetteelu jafe-jafe bu askanu Sénégal jànkonteel soo ci génnee traite négrière maanaam jamono yi njaam jaam ña mm-hmm. ak jamono yi fi tubaab yi ñëwee coloniser nu mm-hmm. euh, jàpp naa ne coronavirus bi mooy jafe-jafe bi gën a rëy bi Sénégal yi dajeel bu yaar yooyu jàllee mm-hmm. parce que day jafe-jafe boo xam ne d'abord feebar la jàngoro la juy rey ay nit. waaye aussi day jàngoro joo xam ne day ndóolal aw askan. day jafe na joo xam ne aussi day daane koom-koom. kon musiba mu réeréy la la yor. fa mu jógee ak réew yi mu jaar ba ni mu ak Sénégal fu mu fi jaar fu ne rek bàyyi na fa jafe-jafe yu mag a mag a mag a mag kon jafe-jafe yu rëy la maintenant ndax euh, yoon wi ñu jaar. baax na wala baaxut. Mhm. évidemment xam nga day dana yomb ci sama côté bu fekkee dañoo bàyyi ba yëf jàll ba noppi ñuy ja xañtu ñuy gëstu fi ñu jaar nga xëy na jamono yañ fay jaar nu ñu wan a xam ne baaxut parce que jàpp naa nit bu defee lu buy def dara te xam ne du am résultat bu ko du ko def sax wala boog bu ko def du ci yàgg. Mhm. parce que li ñu seetlu mooy diggante le 2 mars ak léegi jàngoro ji bu njëkk benn nit la daloon. tey ji dem na ba ay junni junni nit wopp ci mhm. bi gën 2 mars kenn faatuwu ci woon tey jii juróom benn fukki nit faatu nañ ci mhm. kon dèjà rek waree na ne jafe-jafe maanaam fu jàngoro ji àggul woon it àgg na fa mhm. kon mel na ne xëy na mesures yi ñu jël euh, taxul jàngoro ji law gi muy law ci réew mi deñ waaye nag mën naa am xëy na jë yooyu bi ñu ko jëlee wàññi na euh, gaaw gee wasaaroo Euh, xëy na docteur yi aussi disposition yi ñu jël ca barabu fajukaay ya mën naa am tax na ñi faatu wàññiku parce que soxna si boo xoolee bi jàngoro ji ñëwagul fii li ñu doon wax ci Afrique tubaab yi dañu doon wax naan Afrique moom ren la seen àdduna yi tukki ay junni junni ni daañ fa faatu ay nguur daañ fa daanu waaye wax dëgg yàlla bu nu waxatee dëgg bana bi jàngoro ji duggee fii ba mat euh, ñetti weer bu ñu xoolee xam ne lañu ñu doon dig ci ay musiba dalunu xëy na ñoom ñi ko doon dig ñoom la dal waaye nag loolu Sénégal rek la dal boo xoolee réew yi nga xam ne ñoom la bokkal Afrique gi mu bokk muy Mauritanie ak Guinée yi jëm ba ba ngay dem Tchad. Mhm. muy Afrique tropicale wala Afrique soudano-sahélienne wax dëgg yàlla xa euh, jàngoro ji maanaam coronavirus xadara ji mu àndaloon ci réew tubaab yi. Mhm. feeñu lu ko fi loolu nag yu baree bari xëy na moo tax loolu bu ñu demee ba ci kanam euh, euh, maanaam borom gëstukat yi daañu daañu ko xool maintenant nag pour être simple. Mhm. man bu may analyser problème bi dama koy xaaj ñaari xaaj avant le 2 ak après le 2 le 2 mars avant le 2 mars ak après le 2 mars avant le 2 mars Sénégal dafa bokk ci réew yi njëkk a yëg jàngoro ji lu tax mooy dañoo am suñu doom yoo xam ne dañoo nekkoon ca Wuhan ci Chine. Mhm. fa nga xam ne fa la jàngoro ji feeñee. ñoom ñu jëloon médias yi di sàkku ne dañoo bëgg ñu delloo si leen ci biir réew mi. Mhm. ca jamono jooju président de la République waxoon ne moom du leen jëli parce que amut moyen leen jël si. am te kon ginnaaw bi dem nañ ba waa APR xoolee ne wax na dëng ñu di ko jubbanti naan président daf doon bañ indi nit ñi ñuy wàllu waa réew mi waaye soxna Aminata bu fekkee da ngaa a indi fukki nit ak fukki Sénégalais ak benn ci réew mi ngir bañ ñu wàllu waa réew mi mhm. waroo bàyyi sa buntim réew mhm. quatre vingt jaar ca ba ji réew mhm. parce que li may wax toujours coronavirus ko kii nam tudd euh, cas contact ak cas communautaire cas importé moo leen jur te boo xoolee bi ñu tëjee aéroport bi toog ak nañ diir bu yàgg kenn déggatul cas importe kon xëy na bu ñu teeloon sa tëj suñu aéroport kon xëy na li fi dugg du fi dugg wala même bu ñu ko mënu tëj it ni ñu mujjee ñu di ko def mooy ku fi dugg ku ne ñu testé la xool ba xam jàngoro ji ngi ci yowam dit loolu aussi jàpp naa ne bu ñu ko teeloon def mbooloo mii du fi dugg kon avant le deux jàpp naa ne yeex nañoo tëj frontière bi yeex nañoo jël ay mesures pour ñi fi dugg ñu xam ndax jàngoro ji ñu ngi den après le deux dama wax ne ñeenti yëf la président la war amal ak Sénégal yi benn mooy un ki wopp ñi wopp mu yem ci ñoom fi wopp ji am mu yem fa fi wopp ji àggagut bañ fa àgg ñi woppagul bañ fa bañ bay or bu ñu xoolee xam ne wo wopp ji ñi mu daloon yemut ci ñoom fa wopp ji tàmbalee yëmu fa parce que tey ji mbooloo wopp nañ ay euh, Sénégal gépp région yëpp àgg na fa kon encore une fois daal li mën a wax mooy ah, wax dëgg yàlla xëy na mesure yi baax na waaye nag jàpp naa ne nañ ko waroon a defee ca jamono yañ ko waroon def bu ñu ko defoon te def ko nañ ko waroon defee xëy na duñ agsi fii nga xam ne moom lañ ci agsi parce que xam nga en matière d'épidémie moom mhm. yaar yi lay bañ def lu tuuti ak yéex a def. malheureusement Sénégal loolu dañ ko def. Mm-hmm. da leen a dal kon nga jàpp ni foofu am na benn njumte bu fi am na benn njumte dëgg la mm-hmm. euh, gis nañ ci li nga xamante ni moom la président euh, jotoon taxawal ci commencement bi muy euh, jagleel li nga xamante ni moo di askanu Sénégal ay ndimbal lan moo tax ci départ bi ci sa gis-gis ndimbal yooyu jëlu ko woon mu def ko li nga xamante ni mooy ay matériel de santé lu ki mel ni ay gel ay li nga xamante ni ay masque ndax am na ñu nga xamante ni ba tey it ci loolu. loolu mënaguñ ci joti mu tëb rek def ko li nga xamante ni moo di am ay ceeb ndimbalum ceeb te gis nañ ni ca commencement bi wala moom bi mu toogee ba nëgë ni Sénégal émergent lay wax kon ñu jàpp ni est-ce que émergent boobu bu fi nekkoon tey jii ni président dina jël bërët rek ay ceeb di ko jagleel askan bi au lieu que ay matériel de santé waaw pour li man li ma jàpp mooy ca départ ba d'abord joxeb ceeb bi rek pour man erreur la mhm. maanaam joxeb ceeb jënd ceeb ak diw parce que soxna Aminta xar guddi yi ñu toll ak xaral xarala gi am ci adduna bi nga xam ne transfert d'argent mm-hmm. ay milliards mën nga ko ci yónnee jàpp naa ne gouvernement bi li ma waroon def mooy fexe ba xam ñan la war a dimbali am seen numéro téléphone ak seen numéro carte d'identité yónnee leen xaalis ci seen téléphone ñu dem jënd ko fañ ko soxla loolu loolu lan lay jariñ benn un doo am ay appel d'offre ngay sonn doo am ay transport bi ci des mooy ki ngay yónnee xaalis bi li mu bëgg la ciy jënd mm-hmm. c'est-à-dire loolu day développer li ñu wax l'économie locale maanaam borom boutique bi ci koñ bi di jaay ceeb. soo waaj suñ joxee nit ñi xaalis ci moom la ñuy dem jëndi. maintenant su fekkee dañoo maye ceeb bu jógee Ndakaaru. kii jaay ceeb ci Mbadakhoune wala wala Darou Khoudoss wala Darou Minam wala wala Kaolack kooku ceebam du jar. loolu day day day day néewal doole. koomu koñ bi nga xam ne fi la fi la nit ñi dëkk. kon jàpp naa ne joxe ceeb bi moom déjà erreur la maintenant. <coughs> soo naan ñun waa Sénégal. 1960 ba léegi kenn déggu fi ndax xiif. Mhm. dëgg loolu du dëgg. dëgg la le 2 mars ak léegi 60 personnes dee nañ fi ndax coronavirus. Mhm. kon Sénégal lii seen problème du ceeb coronavirus la te coronavirus kenn du ko xeexee ci saaku ceeb. li nga xam ne moom la ñëpp àdduna d'accord mhm. ci li mën a aar nit ñi pour ñu mucc ci ci jàngoro ji benn mooy gel bu nit ñi di laal seen loxo ngir jàngoro ji ba bu ci taxee di faatu ñaar ay masque bu nit ñi dee laal gel di laal masque mën nañoo mucc jàng parce que masque mooy lan. jàngoro ci gémmiñ lay jaar ak bakkan. su fekkente ne takk nga masque maanaam tëj nga bunt bi nga xam ne ci la waroon a jaar dugg ci yow waaye tëj nga bunt bi nga xam ne bunt yi nga xam ne ci la waroon a jaar génn ci yow dem ci keneen. kon président xaalis bi mu laajoon ne da koy xeexe mbas mi lam ci waroon a gën a bàyyi bàyyi xel ñaar yii la. maanaam moyen yoo xam ne daañu ci mën a fàggandiku. ba jàngoor ji bañ a agsi bañ a bañ a bañ a dal nit ñi ñaar ñi nga xam ne dañoo wopp aussi ñu wut luñ leen fajee mhm. waaye man jàpp naa ne mbirum mbirum mbirum ceeb bi moom mhm. président yi dugal ay ay mbirum politique politicien mhm. te loolu li muy jël li muy wàññi mooy day dama yàgg xelum nit ñi jaxasoo ñu naan waaw kii moom sunu fe wopp ji itteelu ko affaire politique moo ko itteel su ko defee ba yàgg ba yàgg day mujj nit ñi bàyyee ko tey jii ku xool réew mi ku dem ci dëkk yi gis nañ ci mbedd mi da ngay xam ne ak bàyyeeku mi ngi bëgg am. Mhm. te pourtant jàngoro ji mi ngi ci réew ba léegi. Mhm. jàngoro ji day rey. Mhm. kon jàpp naa ne wax dëgg yàlla erreur bi moom erreur joxe ceeb bi erreur la woon. waaye erreur bi dëgg dëgg dëgg mooy bañoon a jël xaalis boobu dugal ko ci jëndal nit ñi ay ay jumtukaay tey jii boo demee dans les communes dans les communes du Sénégal foo fi dem. soo fa gisee raxasukaay loxo soit nit ñoo ko jënd teg ko fa wala maire yi. masque yi ñu jox nit ñi. maire yi lay doon wala ay bonne 10 millions de masques yi président moom lañ jënd sax nit ñi gis kenn gisagu ko. kon encore une fois ci wàllu googu moom. wax dëgg yàlla encore une fois foofu lajj la jàmm na ci. maintenant nag euh, man du ma wax toujours naan bu an tuuroo ndox baax fa des déedéet da ngay tuuriwaat rootewaat maanaam guddi yi ñu toll moom. ñaari mesure laa jàpp ne gouvernement war na ko def. wala boog ñett d' abord un état bi ñu dindi ko ak couvre-feu bi. su ko defee police ak gendarmerie. ci mbedd mi bëccëg yi di xool nit ñi ndax takk nañ masque wala takkuñu ñaar mu jënd ay masque ñu jox ko nit ñi ak i gel mbedd yépp ñu teg fa ay raxasukaayu loxo mhm. dénk ko ASC yi maanaam koñ bu ne ASC ya fa nekk mhm. ñu jox leen ay masque mhm. jox leen ay gel jox leen raxasukaayu loxo bu laajee ñu di leen masal xaalis sax ñu jox leen ko parce que nawetaan amul dara amut xale yi ñu mobiliser koñ bu ne ña fa dëkk ne koñ bii sa jàngoro du fi dugg de jàngoro du fi génne jàpp naa ne bu ñu ko defee ba réew mépp daj balaa mat un mois deux mois mm. jàngoro ji dina dina dina dina mën a dem kon encore une fois mm. ah xëy na rëq-rëq am na ci départ bi mm. waaye li ëpp solo mooy war nañ def maintenant bi ci des nag mooy xam nañ ne jàngoro ji ci mag ñi la gën a aay mooy sama classe gi ñi am juróom benn fukki at yu tegal wala wala juróom benn fukki at ñooñu boo xoolee Sénégal lu mu bëri bëri matul un million de personnes mm-hmm. c'est-à-dire Ndakaaru gi deux cent cinquante mille mag moo fi nekk maanaam ñu am plus de soixante ans jàpp naa ne état avec les quartiers les délégués de quartier. Mm-hmm. avec les associations des imams. Mm-hmm. pour ñu identifier mag ñi seet naka lañ leen war a jàppalee ba aar leen ñoom ba jàngoro ji dal seen ko mm-hmm. loolu jàpp naa ne lu mat fa loolu nag état bi rek du ma ko da ko war def ak ñu ñu ma wax. maanaam délégué de quartier yi ilimaan de village yi. mais aussi ak xale yi. xale yi aussi jàpp ne maanaam bokk nañ ci ñu war a aar seen maam ak seen i baay. dëgg loolu jàpp naa ne lu gouvernement bi war a parce que en réalité ji li mu ñi mu mu aay mooy koo xam ne day mag. wala bokk feebar te ñaare mag rek dañ wax ne doy na feebar kon mag ñi ak ñi feebar bu ñu leen ci génnee rek jàpp naa ne jàng li des na mooy ñu takki masque mhm. yori gel mhm. te ñu jublu ci liggéey maanaam école bi ñu tëj ñu tijji ko xale yi jàng yi mhm. ñiy liggéey liggéey l'essentiel kenn ko ne takk parce que gis nga boo takkee masque soxna Aminata Diop mook distanciation physique ñoom c'est-à-dire boo takkee masque mën ngaa den ak nit ki moins d'un te doo wàññi dara parce jàngoro ji du jóge ci yow dem ci moom moom itam jàngoro ji jóge ci moom jëm si ci kon encore une maa ngi ci insister maintenant mhm. nag su fekkee gouvernement bi wutalul nu masque kenn ku ne ko wutal sa bopp. parce que nag. Mhm. suñu bakkan moo nekk ku ci faatu it président euh, gouvernement bi mën na ko bañ sax yëg. kon encore une maa ngi soññu nit ñi ñu wutal seen bopp seen i mhm. di ko takk. di di raxasoo saabu. bu ñu ko dee def rek yàlla mën nañu dimbal léegi jàngoro ji jóge fi bu soobee yàlla jërëjëf eh, gis nañ ñu des ci li nga xamante ni moo di ndimbal moomu mu jaglee loon askan bi eh, parce que bi mu ko waxee léegi def na ñaari weer ak lu topp wala ñu ni 3 mois waaye ba tey jii nii am na ci ñu nga xamante ni ndimbal moom mu egg eggagul ci ñoom Euh, indi na fi tamit coow ndax am na ci ñu nga xamante ni tey jii nii kenn ku ci nekk boo ko nee toogal sa kër ndax am na ci mesure yi loo xamante ni euh, ñu ci bari seen bërëbu liggéeyukaay dakkal na ko est-ce que nit ki nag soo dakkalee li nga xamante ni moo di liggéeyam ni ko dinaa la indil ndimbal mu toog lu tollook euh, ñaari weer te ndimbal moomu jotu ci est-ce que bu ñu ko doon xaar yaakaaroon ni am na ci ñoo xam dinañ ci loru ndaxit jàpp nga ni tey jii nii rëq-rëq yi ci am comme ni nga ko waxee sànq doxalin tey jii nii euh, moo indi rëq-rëq bi ak coow li nga xamante ni moo ci am. waaw xam nga aide bi dañ ko tudd aide d'urgence maanaam ndimbalu jàmp ci wolof mooy aide d'urgence mooy ndimbalu jàmp. Mhm. boobaag léegi ñaari weer euh, biñ ko tàmbaleeg léegi. Mhm. Euh, bu fekkente ne téeméeri Sénégal lañ ko waroon a jox juróom benn fukki bi ak juróom kenn gisagu ci dara. Mhm. c'est-à-dire man suufay ma ko wax maanaam boo xaajee ña réew mi ñi ko soxla ñetti xaaj. benn xaaj bi ñoom ñoo gis. te gisaguñ sax lépp. kon jàpp naa ne dootu ndimbali jàmpatul ñooñu maanaam bu Sénégal doon xaar daañu faatu. Euh, li ko indi nag ba tey ma ngay delluwaat ca départ ba rek mhm. choix bi ñu jël di joxe ab ceeb ak dugub loolu moo mënoon a ñàkk parce que bu ñu ko jaarale woon ci xaalis liquide na gën fekk ni ñu jël dañ seen xaalis ba lekk ko bu yàgg mhm. kon encore une fois loolu rëq-rëq bu mag a mag la ci bi ci des mooy am na leneen lu ñu dégg aussi mooy bari na ñu ñu ñu jox ñoo xam ne waruñu ko woon a am mhm. parce dañ ko tër ci këyit bi euh, maanaam euh, fichier bi nga xam ne ci lañ doon joxe les bourses de sécurité familiale da gis genn kër goo xam ne parce que dañ ne ko am bourse sécurité familiale war ngaa am ci aide bi mhm. nga gis kër goo xam ne ñetti nit wala juróomi nit kenn ko day am bourse sécurité familiale cest à bu ñu fa indee mën faa dugal sox tonub ceeb te à côté ñoo xam ne soxla nañ ko bañ cee bokk kon encore une fois loolu aussi rëq-rëq am na ci bu mag a mag ci d'abord séddale bi yeexaay bi mais yeexaay bi man personnellement béttu ma parce que nag tonnage ceeb bu toll noonu. pour nga mën koo distribuer ci réew mi. wax dëgg yàlla sa mënul ñàkk temps parce que Sénégal ay logistique maanaam jumtukaay yu mu transporter matériel boobu dafay xaw a jafe ci réew mi. Mhm. mais loolu aussi c'est des erreurs moo tax ma jàpp ne xëy na bu fekkonte ne ñi ah, manees na ko ñi nga xam ne jotaguñ te ñu mën leen yónnee xaalis ñoo leen doon xaalis moo gën quoi parce que sinon. Mhm. bu fekkente ne dañoo def 2 mois. Mhm. jox un daa ñu defaat 6 euh, mois wala en tout cas yeneen 4 mois. door a jox ñu ci des te loolu nag defe naa boobaa nag ndimbal loo xam ne dañ ko def pour pour bañ nga bañ a dee ci xiif yaakaar bu ñu defu ndànk boobaa nit ñi lañ leen fekk dee xiif en réalité duñu leen fekk dee xiif parce que nag sénégalais yi lu ñuy dundee mosuñoo compter ci gouvernement te ñaanuñu yàlla sax mbas mi nekk fi ba boobu euh, ñu des ci li nga xamante ni moo di wàllu euh, wér-gu-yaram bi di santé bi mm-hmm. euh, gis nañ ne Sénégal li nga xamante ni mooy di hôpital yi bari na ci yu nga xamante ni matériel yi ñu fa waroon doon def defuñu ko fa te it gis nga tey jii nii euh, lu ci bëri ci hôpital yi résultat yi nga xamante ni moom la ñuy def ci li nga xamante ni mooy fajum Covid bi euh, doo xoolee matériel yu bëri wala région yi sax ku ci musoon a feebar Dakar lañ lay indi tey épidémie bi ñi ci tëdd ñëpp mënuñoo tëdd ci biir hôpital yi nekk Dakar loolu noonu ban jàngat nga ci am te it état bu Sénégal boo ko doon conseiller ëllëg bu jógee ci lii mu am ban taxawaay ci li nga xamante ni moo di wàllum wér yaram bi. Euh, soxna Aminta bokk na ci li bi wan mooy suñu feebaru kër hôpital kër docteur. maanaam mhm. suñu hôpital dafa feebar. Mhm. Euh, kër docteur yi doyut. Mhm. docteur yi doyuñu loolu moom xamoon nañ ko mais dafa gën a fés. Euh, ndax bi coronavirus bi ñu maanaam loolu ñu wax lal yoo xam ne mas na caa tëral ku wopp ci coronavirus moom les cas graves fukki lal ak ñaar la ci Sénégal amoon 1960 ba léegi. Hmm. te te ndakaaru gi la nekkoon nekkul woon sax ci biir région yi daanaka dara amu fa woon. kon hmm. encore une fois wan nañu. Hmm. suñu feeb loolu lañ ci war a gëstoo jàngate mooy bu ñu ci lii. bokk na ci li Sénégal war a xoolaat mooy am pajam mhm. parce que soo namit bu ko fàtte la première université en tout cas faculté de médecine de l' Afrique francophone mhm. noir francophone Sénégal gii lañ ko tabaxee muy ëpp fii la nekk ci biir Ndakaaru mhm. tey jii boo demee ci Maroc la fa ëpp ci ña fay faj Sénégal gii lañ leen formé wasaalika naka noonu Tunisie ak Mauritanie te tey jii ñooñu boo demee seen hôpital xam ne ñoom ñoo nu gën a am taxawaay kon encore une fois jóge ci maanaam wutaat defaraat hôpital bi ba bu ko defee région bu ne au minimum. Mm-hmm. mu am un grand hôpital de très au niveau pour benn Sénégalais dootu jóge ci région di ñëw Dakar di fajesu mais aussi benn Sénégalais dootu jóge ndaka euh, euh, maanaam ci biir réew mi di dem faju ji à l'étranger maintenant nag. Mm-hmm. li wax te ne coronavirus bi am na njariñ parce que xam nga lan mooy njëriñ li. Mm. ba léegi mën na téeméeri fan. Mm. ku fi wopp mm. ci Sénégal nga toog. Mm-hmm. maanaam ñi daan wopp di faju ji moom toog nañ Sénégal parce que amatuñ fu ñu dem. kon nag nañ fexe ba bañ a tee bëgg a dem. Mhm. parce que nag lu mel ni mën naa amat. kon encore une fois waruñu jublu ci pañ mi. Mhm. ba jox ko euh, man ak ji mu war. Mhm. yokk kër docteur yi. yokk docteur yi. yokk seen i salaire. ndaxte gis nga ne soxna si. lu la waay mën a wax. lu waaye am di ko tal da jàmm da caa jiitu. nit ñi bu ñu amatul jàmm wér. mu amul duñ mën a am jàmm hmm. nit ñi buñ amul bu ñu wérut ñu mën a liggéey hmm. duñ mën a jàng duñ mën a jàmm yàlla kon wér moo war a jiitu ci programme bi kon encore une fois jàpp naa ne bu yi weesoo hmm. war nañ ko maintenant am na aussi benn erreur boo xam ne gouvernement bi def na ko parce que bi yëf ni këtam dañoo daal jël ay hôtel yóbbu fa ay nit man ca jamono jooju laa ne lii lii mënta ma ne woon ca jamono yi dañoo war a créer des centres régionaux de confinement ñi nga xam dañ jàngoro daa dal ci te feebaruñ ñu wut ay barab ci région bu ne ñu wut fa barab dugal leen fa di leen xool ba xam ne jàngoro ji mujjee ñoom parce que tey ji état bi def na douze milliards ci hôtel yi mujj na mënatu la fay mënatu leen fay léegi génne nañ leen. kon loolu erreur bu rëy rëy la. mais bon euh, xay na jàpp nit situation bi fi jàngoro ji fekk ci mbirum hôpital moo war a indi loolu. malheureusement tey ji douze milliards yooyu. Mm-hmm. soxna Aminata yaakaar naa bu buñ ci buñ ci dugaloon ci defar ay centres régionaux. Mm-hmm. de d'internement des malades. yaakaar naa ne danañ ci defar yu bari. te bu yëfi jàllee dañ ko fa mën a bàyyi ngir ëllëg. bon mais am na ba noppi. kon encore une fois li ci des daal mooy. ah docteur yi moom am nañ xarañ gu toll ne ñu ngi am na jumtukaay yu ñu pour di faj nit ñi. nañ continuer ci loolu. mais li ëpp solo rek mooy na nit ñi takki mas di laal di raxasoo saabu wala gel. su ko defee jàpp naa ne su boobaa bu ñu wàllanteetu jàngoro yi ñun tun bi rek jàngoro yi la mu jóge fi jërëjëf euh, kon euh, lan euh, jàpp nga ci sa commencement wax ni bi président état bi bi ñu nee bërët rek mesure yi nga xamante ni jëloon na ko yooyu taxaar na li nga xamante ni moo di mbas mi xëy na ndonte jógagu féet mais na mu doon lawee wàññeeku na waaye ci kaw loolu dañu gis ni bi muy jël li nga xamante ne mooy mesure yooyu bu kaa yi dañu woon ñi faatu tamit dañu woon waaye recul bi mu ci def maanaam dellu ginnaaw bi nga xamante ne dellu na ko ci ginnaaw te jàngoro bi gën ci law loolu ban gis-gis nga ci am xam nga loolu président dafa dafa expliquer xam nga nit ñi foog nga leen expliquer li ngay def bañ xam lu mu doon waaw soxna si mënuloo am nga am 79 cas waaw décrété état d'urgence hmm. ah d'abord nga am 7 cas tëj école yi am 79 cas décrété état d'urgence zéro mort wala boog deux morts nga décrété état d'urgence dama dem ba am presque juróom fukk yu faatu euh, ay maanaam lu war a mat ñeenti junni yu tegal yu wopp nga ne nag léegi damay euh, maanaam teengal ba ma doon teengal dama koy dindi xam nga loolu pour mu dugg ci bopp nit ñu di leen di xaw a jaaxal mais en réalité lan moo am gis nga ñun dañoo France moo nu wàllum tiitam cest à tiit mi France tiit hmm. ñun ci lañ topp lu France ñu def ko te ñun bokk ñoo France situation te loolu waroon nañ ko xam bi mu amee 60 jour ci réew mi. dëgg la waaye ñun dañoo topp France rek su France ne damay décréter état état d' urgence sanitaire Macky Sall décréter état d' urgence bu nee Macky Sall euh, France damay confiner Macky Sall damay confiner loolu moo ñu indil jafe-jafe bii nga xam ne moom lañ dal. parce que en réalité gis nga ñun cas yi nu am 60 morts. 4000 euh, malades. su fekkonte ne France lii nu am la am kenn du yëg ne France coronavirus na kenn du ko yëg duñ ko wax sax ci journal 60 morts en 100 jours. Hmm. ak moyen de mille malades. Hmm. en 100 jours bu fekkonte ne situation boobu la France doon dund. Hmm. kenn du yëg ne France am na coronavirus. moo tax ma jàpp ne ñun tam nag war nañoo comprendre un ginnaaw mag ñi lay gaañ nañ fexe ba isolé mag ñi. ba ñoom ñu wàññi seenu génn. xale yi nag ñu wutali ni masque. te ñu dem liggéeyi. man jàpp naa ne loolu mooy solution bi parce que en réalité même xale yi mën na laa dal sax ko yëg. parce que jàngoro ji moom mel noonu maanaam xale bu nekk waxambaane wala jànq bu bu dëgër su ko dalee du ko sax yëg kon ginaaw ñëw ñu bu leen dalee duñu yëg nañ fexe ba ñoom ñu wutaleen masque yoo xam ne du leen dal naam waaye nag ñu boole ko liggéey parce que nag sa soxna si mm. su nit ñi liggéeywut mm. xëy na daa ñu mucc ci dee ci coronavirus waaye daañu dee ci xiif te nag dee ci xiif moo gën a métti dee ci coronavirus mm-hmm. moo gën a métti dee ci xiif macha allah xam nga borom kër gu toog ci këram ay go amul dépense bu mu jox loolu dara gënu ko métti. Mm-hmm. maintenant nag loolu pour mu gaaw fee jóge mm-hmm. kenn ku nekk ci nun na ko def yëfi boppam. Mm-hmm. kenn ku ne na jàppee boppam ne man un jàngoro ji du jóge ci man dem ci kenn. du ma nangu mu jóge ci kenn ñëw ci man. sama kër gi jàngoro ji du fi du fi du fi jóge dem ci kenn. du ma nangu aussi feneen jóge jàngoro jóge feneen ñëw ci sama biir kër bu ko kenn ku ne defee ci sa bopp ak sa njaboot. léegi jàngoro jóge ci réew mi te quoi que loolu mooy li nga xam ne ñun ñëpp loolu ci li war a jublu. d' accord kon transport bi nga xamante ni bàyyi nañ ko pour ñuy dem circuler diggante région ak région yow loolu d' accord nga ci. bien sûr d' accord naa ci mais doo doo yem ci bàyyi transport bi da ngay fexe ba transport kuy dugg ci woto ku ne. Hmm. takk masque bu baax kuy dugg ci wata ku ne d' abord un bala ngaa dugg nga laal gel dégg la. Hmm. soo dugg dugg ci bi di nga takk masque. Hmm. yaar yooyu boo ko boolee jàngoro ji kenn du la ko wàll parce que dama la wax ne jàngoro ci ñaari ñaari bën bën bën bënu nit lay jaar dugg ci nit mhm. muy bakkan bi ak gimiñ gi soo tëjee bakkan bi ak gimiñ gi doo ko génn du jaar ci yow dem ci keneen waaye du jóge ci keneen ñëw ci yow kon encore une fois man d'accord naa ci ñu bàyyi transport bi comme d'ailleurs bàyyi nañ ko sax nit ñi delluwaat ci waaye nag bu ñu bàyyee transport bi rek bàyyi marché yi ñu mel nañ man ba pare nag ne dañu tëj école bi loolu man jàpp naa ne du sotti kon encore une fois li ma jàpp mooy pile boori le 30 juin école yëpp la war a tijji mhm. deuxièmement jàkk yeeg yooyu ñu ubbi yëpp nit ñi dem jaamu jàllo l' essentiel mooy fépp foo xam ne mbooloo dafay nekk du maanaam mbedd mi moom képp ku fi takkul masque boo génnee ñu jàpp la teg lay daan mboo foo xam ne mbooloo dafay daje su boo ñëwee fekk foofu foo mën a raxasoo sooy dugg nga yor masque jàpp naa loolu bu ko ñëpp defee kenn ku ne nag nangu ne loolu metti na waaye dañ ko def ngir sauver askan wi nga nangu ko defee naa boobaa lee ñu génn ci encore une fois moom euh, du mën a sotti que nag gis nga soxna si réew mi 97 pour cent maanaam téeméeri Sénégal yu ne euh, yu ne juróom-ñett juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar. ci taaba taaba la ñuy dund. dëgg la nit kuy dund ci taaba taaba kenn mënu ko nekk ko toogal sa kër. Mhm. nit kuy dund ci taaba taaba dañ koy bàyyi muy xëy di wut dépense. Mhm. nit kuy xëy di wut dépense boo ko nee bul génn sa kër da nga ko bëgg a rey. Mhm. te du ko nangu moo tax coow yi nga déggoon jamono yële ci indi gannaaw. dara mhm. indi ko sekk nit ñi seen muñu kaay jeexoon. dëgg la seen muñu jeexoon. ñu fippoo. dëgg la euh, ci école boobu ñu desandi ci euh, président euh, jëloon na dogal pour ñu delloowaat ci l'école yi ci le deux bi passé. ba nga xamante presque jàngalekat yu nañ leen ci béréb yi nga xamante ni fa ñu nekkoon. bi ñu demee ba nga xamante ni daanaka ñu ne suba rek la 11 euh, suma su ma jumul 40 minutes ñu génne seen benn décret ni annulé nañ ko. Mhm. Euh, ban jàngat nga am ci loolu te it ndax jàpp nga ni euh, année scolaire bii ak lu ñu mun ci def it njàng mi mun na sauver sauver wu mun nañ koo sauver année scolaire bi ndax bu ñu fàtte nii ba tey it am na ci béréb yu nga xamante ni amaguñu ay école ay mbaaru sàkket ak yooyu lañuy ñuy jànge tey nawet bi mi ngi commencé di menacer di dugg si ban jàngat nga am ci loolu. maanaam euh, ubbiwaatum njàng mi gouvernement bi daf cee def ay yu rëy rëy rëy bu njëkk ba mooy mhm. dama jàpp ne jàngalekat yi waroon nañoo dellu fa ñuy jàngalee fukki fan ak juróom avant avant le deux benn mhm. ni ñu ni ñu leen jëlee fii da maanaam rumbuxlu leen daje leen ci Liberté 5 ñu mel ni ak gétt loola bokk na ci loo xam ne koo gis ku ne danga xam ne jàngoro ji jàng jàngalekat yi dañ ko yóbbaale mhm. c'est-à-dire tey jii bari nag réew barab yoo xam ne jàngoro ji nekk fu jàngalekat yi ñëw ko fa yóbbu loolu nag du responsabilité jàngalekat yi responsabilité gouvernement bi leen yóbbu ci condition yi mu leen yóbbu la su fekkoon ne dañ ne 15 jours avant le mm. jàngalekat bu ne na la fekk fa fa ngay jàngalee. Mm. soo ñëwee ñu testé la xool bu bu demee ba ba mu des ñaari fan wala ñetti fan ñu ñëw testé waat la su fekkee dara jotu la yow nga dem jàngale ji su fekkee da ngaa wopp ñu jël la yóbbu la nga faju ji. Mm-hmm. loolu mooy lañ loolu lañ war di waaye xam nga boo nee nit ki la deux ngay jàngi maanaam deux jour après mu jóge fi dem ñib dem dem fi mu jëm loolu mooy lii lii rek la mën a indi kon encore une fois ci maanaam procédure bi moom ci lañ ci lañ ci lañ juume mm-hmm. waaye nag jàpp naa ne aussi mm. am te kon jum nañ gëmuma ne cas yi ñu relevé foofu waroon naa tax ñu ñu arrêté arrêté njàng mi mm. naa nag ginnaaw def nañ ko pare li ma jàpp mooy fii ak le 15 ak le 30 juin mm. gouvernement bi war naa jël matukaayam pour benn école yëpp mën a ubbi maanaam école bu ne classe bu ne ñu teg fa jumtukaay yoo xam ne ña fay jàngee daañu mën a am lu ñu raxas seen loxo daañu mën a am ay masques bu ko defee ñu commencé waat njàng mi. parce que nag tey jii woto li nit ki li muy toog ci woto bu jógee Ndakaaru jëm euh, na mu tuddati Tambacounda moo gën a yàgg fopp li élève bi di toj ci classe di jàng. Mm-hmm. te jàpp naa ne oto bu ñu oto oto moo gën a xat ab classe. am te kon eh, classe yi xat nañ. Mm-hmm. kon encore une fois jàpp naa ne pour être cohérent daal. li ñu war a def mooy ginnaaw bàyyi nañ transport bi oto yi di jël li ñu daan jël war nañoo mën a bàyyi njàng mi aussi xal nit ñi dem jàngi bu leen neexee sax mën nañoo def classe bu nañu xaaj ko ñaari xaaj bu kii jàng see tey ba liggéey ñu jàng si waaye nag jàng mi moom muy école primaire ba université li ma jàpp mooy war nañoo mën a mel maintenant nag pour man le débat de fond sax du sauver année blanche bi c'est que école sénégalaise ci boppam moo laaj moo feebar feebar boo xam ne moom moo laaj fajaat gis nga soxna Aminata man dama daa wax toujours 1960 mm. ak léegi mm. muy 60 ans de 2020 dañ ko def at moo xam ne. day atum taxaw seetlu. bu senegal ñu taxaw xool 60 ans yii ñu jaar naka la ci réew mi foog doxee ba léegi pour quoi senegal mel nii mu mel. lu tax ñu ëpp ci réew mi jànguñu. lu tax ñu ëpp ci réew mi yoruñu. loolu laa jàpp ne waroon nañ koo def pour xam lan moonu dal ba seet nuñ koy war a safara heureusement wala boog moom man heureusement comme man de sax heureusement waaye en war nañu les moo dont souffre notre pays. Mhm. li ma jàpp mooy bu ñu jógee ci lii. Mhm. war nañoo indi xalaat yu bees yoo xam ne dañ ci jaar mën a tabax geneen Sénégal. Mhm. Sénégal goo xam ne ay école am day baax am njàngam day baax bi maanaam li ma gëm soxna si mooy ku juddoo ci réew mi. war nañoo fexe ba làkk wa nga ba nga nàmp. ci sa yaay. nga mën koo bind mën ca ma ma ma man koo liir. Mhm. loolu jàpp naa ne farata la bi ci des. Mhm. làkk wi nga xam ne mooy làkk officiel lu réew muy tubaab. Mhm. war nañoo fexe ba sénégalais yi mën koo bind man koo liir man koo wax. bi ci des mooy diine yi nga xam ne dañ koo bokk. war nañoo fexe ba nit ñi. ñu xamal leen seen diine. parce que léeg-léeg nga gis comportement yoo xam ne la koy indi. ñàkk xam diine rek moo ko moo moo moo ko waral. bi ci des aussi maanaam suñu pajukaay yi warees na ko xolaat bu baax a baax a baax. lu mel ne mbay mi lu mel ne économie bi. ñetti secteurs yi ngi wala boog ñeent yoo xam ne war nañ ko gën a jox xel. benn bi mooy napp mi. soo demee te Jóob boo tàmbalee ndar ba ba ngay dem Casamance. ñi nga xam ne ñoo fay liggéey napp li ñu indi ci milliards ci réew mi te kër koo ci dem ku ne këram yéene ko sarax loolu jaaduwut. Mhm. ndax ñeneen i jariwaay du ñoom. Mhm. mbay mi boo sali gën naka noonu réew mi foo dem fu ne ña fa dàq bay ñoo fa gën a sonn kon jàpp naa ne loolu aussi lu mat a seetaat pour ñu seetaat mbay mi naka lañ ko war ba nit ñi mën cee jëriñ su léeg-léeg damay wax ba ma ne damay xool ba yàgg ma ne Sénégal waa xorom gis nga sonn si mm. réew yu mag yi nga xam ne dañoo dañoo mën a bay mm. duñ bay nawet mm-hmm. ñoom nawet duñ bay dañuy bàyyi ñax mi sax ñu ñu def ko maanaam mu nekk ëllëg lu jur gii dunde wala loo xam ne ci lay tosu euh, suuf si la ñooñu noor la ñuy bay parce que dañuy maîtriser l'agriculture euh, euh, ndox mi mm. kon mbay mi waras na ko xoolaat ba mën a dundal réew mi. Mhm. ba ba ba mën ko transformer sur le plan industriel pour mën koy yóbbu bitim réew di ko fa jaay. dëgg la lu mel ne sàmm gi aussi. Mhm. jàpp naa ne jaadutu Sénégal bu bëggee am tabaski. Mhm. di dem Niger wala mu di fa jëndee ay xar. kon encore une fois ñett yooyu war nañ koo bàyyi xel li ci des nag. mooy li ñu wax artisanat. ñu gën koo jox cër parce que jàpp naa ne ci artisanat bi ci lañ mën a jaar ba nag industrie réew mi parce que réew yëpp foofu lañ jaar buñ ko bëggee def leen dañuy nax suñu bopp loolu xam naa am na ci question yi dinaa ci ñëwaat ci kanam ci lu gën a yaatu mm. euh, waaye li nga xamante ni euh, moo di wàllum det yi mooy euh, bor yi nga xamante ni moom la état doon amal ñi nga xamante ni mooy ñeneen gis nañ ni corona bi dafa dugg rek bëret moom mu ni sàkku na ci ñooñu pour ñu baal leen yile bor ba jëmi jamono mboolem président Afrique yi tamit moom rek lañ déggoon ginnaaw ki nga xamante ni mooy euh, Trump moom euh, mu wax ci euh, léegi ginnaaw président Amérique moom moo ci waxoon président yi nekk Afrique rek suñu président moom moo ci wax gis nañ nag ginnaaw bi dafa mel ni loolu mu doon sàkku yombalal nañ ne ko maanaam baal jàpp nga ni loolu tey jii nii lu waroon na mun a nekk la moom mu di ko yëkkati ak ndax situation bi jar na loolu. ndax secteur privé bi ak ñeneen ñëpp gis nañ euh, seen loxo ni ñu ko dugalee ci li nga xamante ni mooy Covid bi. xam nga Sembène Ousmane dafay tudd benn dafa benn film tudde ko Gelwaar. Mhm. biir film bi am na fu ci fu mu ci waxee ne loxo buy tàlli gàcce la di yalwaan gàcce la booba nag li muy wax mooy yalwaan gi ñu daan yalwaanam dund di ko jox askan wi gis nga soxna si. Mhm. baal ma saay bor moom. Mhm. gàcce la. Euh, du président Macky Sall rek moo ko jékk wax nag président bu Union africaine wax na ko hmm. ne nañ ñu baal suñuy bor hmm. loolu gàcce la xam nga lan lan war a def def ko muy suñu yittee hmm. ñu xool 1960 ak léegi ñun waa Sénégal bor lu tax Corée du Sud gi nga xam ne ñoo ngi moom a tolloo woon tey jii mu raw na lu tax Tunisie gi nga xam ne ñoo ngi moom a tolloo woon tey jii mu raw na lu tax réew yi nga xam ne ñoo ñoo leen jiitu woon ñoom ñu jot na ñun jàpp naa ne foofu leen war a gën a góor góorgóorloo mhm. te bañ a góorgóorloo ci di ñaan ñu nu lebali bor ba tax boor yooyu rey nu pour ñu baal parce que en réalité nag bu ñu dee wax suñu digganteeg yàlla tubaab yi rawatina ci France yoru Sénégal yoralu ko benn dërëm mhm. soo amee ku yoral morom ja France mooy yoral Sénégal waaye Sénégal yoralu ko dërëm mhm. kon encore une fois li ma jàpp mooy président li mu war a def concentré wu cim réewam mobiliser askan wi ñun ñëpp ñu takk suñu ndigg def ni Allemagne yi defoon bi deuxième guerre mondiale jeexoon réew ma dafa tas Corée du Sud gii la guerre de Corée. 1953 mm-hmm. réew ma dafa tas ba doon ba doon banque lañ. Mm-hmm. teewuñu takk seen digg. France aussi da amoon na fa ak yeneen réew yu Europe yi de après deuxième guerre mondiale nit ñi takk seen digg liggéey tabax seenum réew. je crois que président li mu war a jàpp. Mm-hmm. mooy wax waa Sénégal ni leen coono bi ñuy dund bi ñuy ñoo ci mën a génne suñu bopp. te bañ a dugal ci bopp sénégalais yi ne baal buñ ñuy baal suñuy bor moonu moonu mën a génne ci loolu loolu boo ko def da nga askan day yaafus mhm. parce que aw askan boo ko gëmalee ne ko soit bor yu ñu koy lebal moo koy tax a développé wala bor yi ñu koy baal moo koy tax a développé da ngay dugal ci moom ak yaafus te askan bu yaafus moom dara yiisu ko ci àdduna parce que doo doo développé mhm. loolu malheureusement nag jàpp naa ne ñoo ñi wax waxu bor yi moom mhm. li ñu bëgg mooy yaafusal askan wi gëmloo waa Sénégal ne buñ ci bëggee génn fokk ñu baal nu suñuy baal nuy bor wala ñu lebal nu loolu nag jàpp naa ne du moom <laughs> am na solo macha allah ñu ñëw ci li nga xamante ni mooy actualité bi gën a fës ci fan yi mhm. muy contrat Senelec bi ak Akilee bi gis nañ coow li nga xamante ni jur na ko ba président euh, nee na euh, mboolem contrat yi mboolem euh, part yoo xamante ni Senelec am na ko ci Akilee nañ fexe nu ñu ko jëndaatee yow loolu ban gis-gis nga ci gis ndax it jàpp nga ni loolu lu war a mën a nekk la xam nga soxna si man li ma ci gën a métti ci mbir moomu mm. mooy Senelec maanaam mën naa tuddee bu doon mooy deretu askan wi mm-hmm. Senelec mooy deretu askan wi mooy deretu ko maanaam su amul rek euh, nit ñi dara dootu dox mm-hmm. ci gouvernance yorinu réew mm. li xew ci Senelec musuma ko gis Sénégal mm. ab directeur bu ñu nommé muy mm-hmm. dal ci ka ko ka mu remplacé te ka mu remplacé yilif ko ci biir gouvernement bi te déggoo président de ubbi ci yéeyu ci yàbb ci pendant des mois trois mois. Mm. ñu di ji wax jàpp naa ne loolu ñàkk respecté sénégalais yi la te nag man pour man ki ñàkk respecté sénégalais mooy président de la mi nga xam ne may na ay directeur ñuy dal ci ay ministre am te te mu ne pat. Mm. su fekkente ne Matar Cissé ba mu koy def. Mm. président da ko da koo yëgoon ne ci pat. responsabilité bu fekkee yëngu ko woon itam ab responsabilité am di parce que nit ki boobu loo ko dénk-dénk war ngaa xam la may def lu mu doon kon encore une fois li may jëkk a ñaawlu mooy ni ñu ko gérer ay werante diggante directeur ak ministre te président bi nekk fi yëkkute ne pat man jàpp naa ne loolu du du du loo xam ne mooy gën maintenant moom proposition bi mu def ne nañu jënd euh, maanaam action acculée mm-hmm. déedéet pour man li ma jàpp mooy contrat dañ ko war a annuler mm. parce que bu fekkente ne da fañ ko jaar dañ ko fa a jaar. Mm. kon contrat bi c'est illégal. Mm-hmm. kon ñun waruñ maanaam parce que bu ñu nee nañ ko jënd xaalisu kan du jël du xaalisu président Macky Sall mm-hmm. directeur général bu bu bu Sénélec. Mm-hmm. xaalisu Sénégal yi lañ bëgg ñu jënd ci loo xam ne nañ ko defee du yoon. encore une pour man jàpp naa loolu ay waxu caaxaan la. contrat bi nañ ko annulé. Mm. su fekkee nag Sénélec daa bëgg nag maanaam am beneen xara xara man euh, maanaam xarañ ko bees. Mm. jumtukaay yu bees yoo xam ne dina ci mën a gën a yaxanal li muy def mhm. su boobaa Sénégal Sénégal wutali ko boppam mhm. waaye li ma wér mooy li ma jàpp daal mooy Akilee mhm. ak Sénélec boobu sëy moom dañ ko war a seeyal mu jeex Akilee dem ak problème am Sénélec moom saytuwaat benn pexe waaye jënd li nga xam ne mooy action Akilee moom pour man c'est inacceptable parce que su boobaa ñun ñi nga xam ne ñun suñu yoon nekku ci mm. ñun ñooy fay tooxi doone bi nga xam ne waa waa Sénégal defoon nañ ko foofu rawatina ci mm, leneen coow loo xamante ni na fi muy maanaam euh, coowul suuf si di lutte mm. leer bi nga xamante ni euh, mooy suuf soosu nekk ci côté tefes gi ak yooyu nga xam ni euh, foofu dañ ko waxoon pour espace public mais gis nga ni dañ ko doon jël di ko jox ay nit soit ñu defee kër wala ñu def fa seen yeneen jumtukaay ba tey jii di bu jur coom li mu yi takkal ñu bëree bëree bëri bëri loolu yow it jàngat nga ci am. waaw xam nga coole moom kuñ ci taxal tooñ lañ ah, maanaam moom du ma du ma ne président Macky Sall déedéet c'est-à-dire que ñi yoroon réew 1960 ba léegi. Mhm. muy moom muy président Macky Sall président Abdoulaye Wade président Abdou Diouf ak président Senghor ñoom lu luy lu ñoom ñooy ndey mil ci xamal tax. Mm. loi bi daf ne. Mm. boo ñëwee ci tefes gi. Mm. muy mooy moo moo dex gi ak géej gi nag ñoo yam benn atte foofu. Mm-hmm. maanaam ba bu ndox géej gi demee ba fees fa ndox ma yam foofu ngay jógee dox téeméeri mètre. diggante téeméeri mètre foofee téeméeri mètre bi ak fi géej gi nekk kenn wuru faa def dara. kenn mënu faa am dara kenn mënu faa moom dara. loo fa mën a defit lu ñu mën a dindilee doon te du loo xam da mënoo koo jaay mënoo ko mënoo soo koo doon. kon bu fekkente ne gouvernement bu Sénégal daa seetaan. ba nit ñi tabax ci bi kaw kaw biir ndox mi ba naan les pieds dans l'eau maanaam yow ci biir géej gi nga dëkk. kooku gouvernement bi ci boppam moo sàggan moo def moo joué wut rôle kon encore une bu ñu amee ku ñu wax dara nañu wax ne parce que euh, maanaam domaine public maritime wala littoral bi kenn rek moo am sañ-sañ jox ko muy président de la République su fekkee nit dafa am benn mètre carré mu jox ko ko def na lu dul dëgg su fekkente ne ña fa dëkk dañ faa def loo xam ne dañ faa dañ faa sañ waaye kenn joxu ko gouvernement bi ko seetaan bañ def loolu aussi def na lu dul dëgg kon encore une fois jàpp naa ne coow li moom mën naa koo xam ne fa nga dëkk fa nga nekk waroo faa nekk. Mm-hmm. yoon da la faa war a jëlee. Mm-hmm. parce que nag soxna si bis bu yàlla sax ngeen gis mairie yi ak descos. Mm-hmm. wala ministre de l'urbanisme di fekk gone yi teg ay teg ay taabal ak ci mbedd mi di ko dindi. kon bu ñu bu fekkee nag dañuy dindi taabalu dajji cantine jaamur yi parce que fañ ko teg waruñu ko faa teg. ku tabax sax immeuble ci biir foo xam ne waroo ko faa tabax état daf ko war a toj. sinon booba day mel ne day réew mi day réewum kumba am ndey ak réewum loolu nag moo gën a dangereux ci askan. man loolu laa gëm. Mhm. beneen bi ci nag am na loo xam ne Sénégal dañ ko dul bàyyi xel. parce que mhm. en boo xoolee Sénégal avant 1900 avant 1885 maanaam la colonisation. Mhm. suuf si askan wee ko moomoon. Cap-Vert ñi fi dëkkoon ñoom moom seen suuf waa Njaambur waa Bawol extra extra. tubaab bi bi mu ñëwee daa nangu suuf si ci ñooñu. jël ko moomal ko boppam. yor ko ba 1960 bi muy dem mu delloo ko mu jox ko Senghor. waaye Senghor delloo ko ñi ko moomoon da ko téye. ñu ne état bi moom moom suuf si. Mhm. loolu bari na problème la boo xam dañ ko war a dindi parce que tey boo demee ci àll bi. Mhm. ku fa nekkul borom doole. Mhm. wala nga dib sëriñ amuloo joxuñu la àll boo xam ne sax mën nga ci liggéey. kon bu ko defee ñi néew ji doole moom tey lañ gën a néew doole parce que suuf suñ liggéey sax amuñu ko encore une kon jàpp naa ne ni mooy li ma wax rek danoo waroon taxaw taxaw seetlu pour xool suñu réew mii lu tax. à partir de 1960 ni mu doon doxee parce que loolu moo jur Sénégal bu tey gi bu fekkee dindi wuñ doxee noonu nag. Mm. nañu wóor ne dans 100 ñi fiy ñëw daañu fekk Sénégal gu a bon gi mm-hmm. kon encore une fois ci wàllum euh, suuf si moom. Mm. ci géej gi. Mm. responsabilité bi c'est la responsabilité de l'État. benn un faa joxe kenn ndax moom moo ko tere. deux ku fa ku fa tabax mu seetaan ko c'est de sa responsabilité moo ko war a dindi. Mm-hmm. kon encore une fois mënuñoo di dindi cantine ci mbedd mi. ay nit. ñu tabax ci géej gi ba tax nit Sénégal Dakar kenn mënu fee noyyi mm-hmm. jàpp naa ne loolu kenn wul ko sax loolu nag population yi seen bopp ñoo ko war a lànk seen bopp jël seen matukaay yi ñu war a mobilisation ba ñu war a jël ñu jël ko pour képp koo xam ne tabax nga ci euh, tefes gi mm-hmm. foo xam ne waroo faa tabax mm-hmm. ñu dindi ko toj ko delloo wax eh, yëf yi bu ko defee ñu aménagé ko ba mu rafet. Mhm. ñun ñëpp yam ci di fa dem. dëgg la waaw loolu war a def. Mhm, macha allah am na solo mbokki auditeurs yi yéen a ngi teewloo li nga xamante ni moo di émission fàttali euh, mun ngeen indi yéen it seen xalaat jaare ko ci 88 628 05 05 88 628 05 05 honorable euh, sànq ni ci li nga doon wax ñu delluwaat ci ndax it euh, comme ni ma la waxee woon rek bokkoon na ci li ñu waajaloon muy wàllum napp gi wàllum. mbay bi mm, mm. ak euh, li nga xamante ni mooy yeneen euh, ci des ci li nga xam ne moo di wàllu mbay mi gis nañ ni euh, tey frontières yi wala région yi bi ñu ko tëjee baykat yu bëri bari na ñoo xamante ni dañu confiné woon fii Dakar wala ñu confiné ci yeneen i gox te it moment boobu moment wu ruuj la woon moment boobu tamit am na ci ñu nga xam ne waroon nañoo mën a demit liggéey yi préparer seen bopp ci wàllum jiw ak yeneen yu matuwaay yu nga xam ne mun nañ ko jël pour mbay mi mën a ñoŋ tey jii nii coronavirus bu bari na lu nga xamante ni gàllankoor na ko ci loolu tey jii nit doonte tawagul boo doon xelal président de la république pour baykat yooyu ban taxawaay nga ko wax pour mu war ko taxawee ci ñooñu. Euh, gis nga li ma jàpp buñ ciy deful ndànk maanaam lu gën a bon coronavirus dina dal Sénégal parce que bu bu nawet bi yàqoo moom. Hmm. boobu moom musiba naaru lay la parce que bu ko kenn fàtte lu ëpp bu dee téeméeri sénégalais yu ne juróom benn fukk ba ci mbay la ñuy dund mhm. koomu sénégal aussi li ci ëpp ci mbay mi la aju mhm. kon ma jàpp ne ginnaaw jafe-jafe yi am na ba noppi mhm. euh, damaa defe ne président daa waroon def un programme spécial pour l' agriculture et l' élevage un programme spécial lu mu laaj ci xaalis ñoo jëf ko ci su ko defee ñi nga xam dañoo tasaaroo woon ci biir dëkk réew taax yi te doon fa taaba ñi ci bëgg a dellu sa fa ñu dëkk ñu wutal leen ay jiwu ak matériel agricole bu ñu leen bu ñu boo xam ne dañu leen koy jox bu ko defee ñoom ñu mën a bayyi mhm. te nag matériel agricole boobu ak jiwu ñu bañ koo joxe intermédiaire ñu jox ko directement ñi koy bay sa mhm. c'est dans les 557 communes fépp foo xam ne ay communes ña fa dëkk daa am ñu fay bay ñu xam ñay bay ñu joxal leen jiw mhm. jiwu wu ñu bayee jiw yu bari nag ay gerte sëb dugub extra extra jox leen ay euh, matériel matériel agricole bu ñu bayee te bañ ci ak engrais te bañ ci dugal ay intermédiaire parce que intermédiaire bu ñu ko jëlee mhm. dugalee dañ koy détourner lekk ko te boobaa Sénégal moo ciy gën a lor kon encore fois mhm. jàpp naa ne mhm. li ñu ni ñu taxawoo euh, hôtel yi di leen dimbali di ko taxawoo Dakar dem dikk ak aftu ak yenn ak transporteurs yi ak artisans yi béykat yee gën a mën a taxaw parce que bu ñu taxawoo béykat ni ñu war a taxawoo benn un jafe-jafe yi ñuy dund ñoom dina wàññiku waaye dana tax koom gi dekkaliku ba jafe-jafe yi jógee ci coronavirus bi xëy na ne mu waroon a grave dunu grave parce que xam nga soxna si da xool lu mel ne moodu moodu yi at bu jot dañ daan yónnee ci réew mi mille trois cent milliards xam nga ne li xew ci bitim réew daanaka ren duñ yónnee ci dara dëgg ñi nga xam dañ daan ñëw ci réew mi di fi defee seen investissement ñooñu itam kenn ku réew tubaab yi la touristes yi fi daan ñëw. Mhm. dootuñ ñëw maanaam fii 31 décembre moom doo fi gisul touriste. Mhm. kon jàpp naa ne ginnaaw nag lu bari ci koom gi. maanaam dana mi ngi dana yàqu ci mhm. corona bi dana na ko mën na ko yàq waaye nag ñun am na loo xam ne ñun maîtriser nañ ko suñu bopp muy mbay mi jàpp naa ne gouvernement bi daa war a alal ju doy def ko ci fexew nag ba alal jooju baykat yi jot ci baykat yi aussi dugal ko ci suuf si ñu jàpp le bañ mën a bay mbay mu sell bu ko defee bu nawet bi jàllee réew mi góob lu bari xëy na boobaa jafe-jafe yi judd ci koom ci mbirum corona bi dina dina wàññeeku kon encore une fois pour man daal il faut un plan spécial. pour la relance de l' agriculture. pour lan pour pour euh, nawet bi nu jëm bi nga xam ne moom la ñu door dugg si. <laughs> macha allah am na solo ñu jël euh, mbokk bi ci ligne bi euh, fàttali ni kat allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi di la ziara bu baax a baax. waaw. ak ziare. Eh, yaa ngi fii ci rajo Afia FM 93 point 0 waaw kii imaam Alioune Sow la Grand Yoff waaw ah, imaam Alioune Sow ñu ngi lay ziyaara bu baax imaam na yàlla nangu ziyaar amin amin amin waay euh, di rafetlu jotaay bi jërëjëf euh, ab di kontaan euh, ci honorable di ngeen ko invité jërëjëf déglu nañu waxtaan bi mm-hmm. waaye ñu bëggoon ci sànni suñu xalaat tuuti donte ci réew mi lañ bokk dëgg la ñu ngi lay déglu waaw euh, li fi ñuy njëkkee rek nuyu suñu xalif général yi mhm. ak suñu waa jàngu bi muy église bi mhm. nuyu waa rajo bi yëpp di mhm. nuyu honorable di la nuyu yow tamit waaye euh, soxna si euh, ñun éviter lañ ci covid 19 bi waaye dafa mel ni ni ñun yaakaar naa ni ci communication bi ñu defal covid bi coupe bi lañ bëgg a jël dëgg la yaa ngi dégg Uh-huh. te yaakaar naa ni communication bi ñu defal Covid bi nii. Mm-hmm. am nañ yu gën a priorité yoo euh, Covid bi. Mm-hmm. yu fi am. dëgg la ñun ñun ay doomi Grand Yoff lañ. dëgg la chaque année ñu ngi dund ci nawet bi loo xam ne nii moo gën a pire fuuf Covid bi. dëgg la buñ ko defaraloon kon euh, promotion bu mel noonu. Mm-hmm. kon yaakaar naa dëkk yu mel ni Grand Yoff ak feneen ak feneen kon waxatuñ ko. dëgg la. Euh, bi lii am nii nag. Euh, nit moom su dara amee mm. li alxuraan ne yaa ayyuhal lazina aamanu in jaakum faasiqun bi naba'in mm-hmm. fatabayyanu mm-hmm. nit bu ñu la indilee information mm-hmm. na ko càmbar xool bu baax ndax wér na wala wérul bu wéree am nga ci droit bu wérul nag yaay xool nooy doxalee ñin nag tey jii am nañu ci duut tuuti li tax ñu am ci duut mooy mm. su fekkee ni say kilifa mm. dañuy wax lii tey bu xëllëgee ñu wax leneen te lépp nekk fi ñu def ñu koy teg vaar mhm. ñëpp di ci teg te yaa waxoon nga delluwaat fi mhm. ñun am na yoo xam ne boo ñu ko indilee suñu sagoo la ñuy demee ak suñu xel mhm. te yooyu moo ci am kon nag lii am nii tey jii kenn du ne amul waaye bëri na si yu ñu ciy def yoo xam ne nii yu ci bëri ay tappale la léegi nag ñun li ñuy gisoon lu mel ni bu bu amee tey jii mu jaaxal la jaaxal ñëpp dama yaakaar noonu ne réew mi tey ji ni ñu ko dénkee président mm. yaakaar naa loolu la ci xalif généro yi amee ci wàll mm-hmm. nit sëriñu daara yi am ci wàll mm-hmm. maître yeeg église beeg ñëpp am ci wàll man dama yaakaar loolu ne fu ne mm. bu ci liggéey yoon liggéey bi war mm-hmm. tet fu ne dina fa dem jëli tet ñu ñu jël délégation boo xam ne nii dem ba fa mbir mi nekk ku ci nekk ñu ne la yabalal ndaw mu ñëw xool li ñu wax nii am na wala amul mm-hmm. am na ndaw yoo xam ne bu ñu demee ba egsi mm-hmm. ba xool la fa ne mm-hmm. bu ñëwee partagé ko ci biir jàkk yi partagé ko ci daara ji ak église yi kon yaakaar naa ni ku nekk dina xam lii am na ak lii amul waaye loolu amul bañ ñëwee ne tëll li ñu njëkk def tëj daara yi tëj jumaa yi tëj église yi ba noppi ne restez chez vous te ba noppi joxuñu nit ñi li leen gunge ci loolu mhm. ba noppi nag ñoom ñu nekk seen i mbir mhm. tey jii mhm. ba ñu loo nit ñi tere leen ñu dem ci marché yi tere leen ñu lem liggéey ñoom ñu ngi seen ay mbir dëgg la yi ci feeñ moo bari yaa ngi dégg kaaw tey jii affaire ñoom Barthélémy Dias beeg yeneen ak yeneen te yu scandale yu gën a grave yooyu mu ngi ci tant que dégg naa ci honorable muy wax eh, ñuy kuy baalu bor yow ñu may la nga laaj ke waa réew mi dajalaatu li ci nekk yëpp ñu jox la ko mhm. nga waññeeku waat encore laaj cent milliards ñu jox la ko mhm. ñu wàññeeku ngay def ay nomination Moussa Sy mhm. euh, maire la mu ngi fayeeku pourquoi pas poste boobu ñu koy jox ñaata nit ñoo ci mën a jëriñu ah ñaata nit uh-huh. bëri nañ uh-huh. kon léegi yow amoo jafe-jafe uh-huh. beneen bi des encore Aminata Tall lañ koy ñëw di pare pour nommer ko ñaata la mën a delloo ci waa réew mi bëri na kon yu mel noonu moo ci am gis nga réew mi bu ñu bëggee mu dem ñun ñi ma ci yërëm mooy mag ñi li tax mag ñi mooy dafa am ñeent yoo xam ne yàlla da ko moo ñaale ak doomu adama mhm. nit chaque jour mu dund mhm. nit chaque jour mu feebar mhm. nit chaque jour mu euh, mu dee nit chaque jour mu tane yooyu jarul di communiquer ak nit alquran nee na wali kulli ummatin ajalun fa iza jaa laa yastaaxiruna saatan wala yastaxdimuuna nit ku ne dafa am ay fan yu la fi yàlla may fan yooyu du covid 19 su fekkee ni jeexul covid 19 bi du tax mu jeex il fallait lekk li nga ci am mu jeex pour yàlla mun la fi jëlee kon nit ñi nañu moytu communication bu bari bi uti li ñu def parce que ñi leen ko teg ñoom ñu ngi ci leneen kon na man côté boobu laay wax mag ñi mhm. nañu bàyyi saay bu ñu yeewoo di xaar communication bi ñu naan leen ay temps yi ñoo feebar temps yi ñoo dee temps yi ñoo ñëw ñu leen téye mhm. nañu bàyyi loolu suñu bëggee gudd fan dëgg la mag ñi nañ moytu loolu mhm. beneen bi des tamit encore nit ñi nañ leen bàyyi ak seen sago ñu uti li ñuy indi seen kër yi dëgg la ñi ma gën a yërëm nag mooy médecin yi mm-hmm. ndax médecin yi du ci état bi lañ daan amee médecin bi ci suñu papa yi mm-hmm. ci suñu yaay yi ci suñu sœur yi suñu nàngam ci lañ daan gañee dara parce que ñoo lañ daan indil malade yi malade yi ñëwatuñ tey jii boo visité woon biir Grand Yoff ak feneen ak feneen li fi nekk ci ay mag yu wéradi ya daan dem ay rendez-vous dematuñ mm-hmm. te li ko indi ñoom ñoo leen ragalloo te nag fi ñu jëm nañu changé communication bi. Mm. suñu fekkee ne bëgg nañu dimbali réew mi. Mm. bëgg dimbali àdduna ngeen baa jërëjëf jërëjëf euh, rafet na am na solo ñu di ko jaajëfal bu baax a baax euh, moom euh, imam ki nga xam ni mooy Moussa Sow nekk imaamu Grand Yoff mu indi fii tamit gis-gisam bu am solo ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax waaye honorable ñu ñëwaat ci li nga xamante ni moom nga waxoon ci li nga xam ni mooy ñett yi gën a dëgëral li nga xamante ni moo di am réew. Eh, sànq junjoon nga ci li nga xamante ni moo di napp gi gis nañ ni licence de pêche yi lu ci bëri eh, suñu njiitu réew yi da koo jaay ñi nga xamante ni ñoo di tubaab yi tey jii nii wax nga ko sànq nee nga eh, tey jii nii bari na nappkat yoo xam ne seen buntu kër boo fa demoon tey ji ci pauvreté la ñuy dund ñu ngi ci napp gi tey it jàngoro coronavirus bi gis nga impact yu bëri yi mu def ci sur le plan économique bi tey jii nii euh, président est-ce que taxaw jotul tamit mu taxaw defaat beneen ab seetlu ci wàllum napp gi bu bu ñu jógee fii lii loolu su ko mënul dindi tamit yooyu mu jaayoon tamit mu yemale ko fi pour njëriñu askan njëriñu napp bi mun a dellu ci askan bi euh, tamit jën yi tamit ñun ñi nekk ci biir réew mi ñu mën di ci jëriñu di ci dund ndax li baax lépp presque nekkatu ci réew mi génn bitim réew. Euh, jërëjëf gis nga boo xoolee napp gi. Mhm. ñi ci gën a jëriñu mooy. ñi nga xam dañu am ay gaal yu mag armateurs yi nekk ci réew mi di ay yor ay gaal yu mag ami usine mhm. ak ñoo xam ne dañoo dëkk bitim réew mhm. maanaam ay chinois ak ak ñu jóge union européenne mhm. waaye fondamentalement ñi nga xam ne mooy nappkat yi nga xam ne ñooy yori looco yi tëmb ci géej gi wax dëgg yàlla ñoom li leen géej euh, jariñ bariwul te nag ñooñu ñoo moom géej gi parce que constitution bu Sénégal dañ ci bind ne. Hmm. les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. Hmm. kon ma jàpp ne jot na sëkk ñu bañ a bàyyi batu euh, nappkat yi. Hmm. seetaan leen rek ñuy tëñëx tëñëx di leen ñu yor ay bato ba ay loocooy bant walla loocooy lu mën a doon ak di leen abutal ay moteur déedéet dañ leen war organiser. ba ñu am seeni bato yi bopp. organiser leen ba ñu am seeni camion frigorifique organiser leen ba ñu sa am seeni usine bopp. sous forme de coopérative nga xam ne dañuy commencé ndar ba ba ngay dem Casamance fopp foo xam ne ay nappkat dafa nekk ñu organiser leen ba ñu am seen i bateau am seeni usine am seeni i camion frigorifique benn ñu fexe ba ci biir réew mi départ chef de département bu ne mu am nu mu tuddati marché central du poisson bu fa nekk su ko defee béykat nappkat yi nga xam ne ñooy napp géej gi ñooy dugg ci géej gi ñoom ñoo koy ñëw def ko seen i camion yóbbu ko ci biir marché gi ci biir réew mi jaay ko askan ñu ñu lekk bu ko benn intermédiaire du dox seen diggante ak ki nga xam ne mooy client bi loolu buñ ko def ñu ko defee kiy napp dina ci gis boppam kiy napp dina ci mën a dund mhm. waaye fi ñu boo seddee mbay napp moom ñi muy jëriñ mooy ñi dëkk bitim réew wala ñi nga xam dañoo am ay ay bateau yu yoo xam ne sax xëy na leen koy may seen diggante ak waa bitim réew ak ñi nga xam ne ñoom lañ tudd mareyeur maanaam ñiy jaay jëni ci biir réew mi waaye ki nga xam ne mooy tëmb moom dugg ci biir géej gi moom daanaka wax dëgg koo ci dem këram ku ne da nga ko yéenab sarax loolu moom jàpp naa ne lu lu mat a dindi la ci réew mi parce que maanaam ce n'est pas normal que nit ñi li ñu moom ñu dem a dem ba daanaka dër jëriñu ñu leen dara. Mhm. loolu mooy tax la mooy mooy moom moo indi woon nit ñi ngay dégg ñuy dem Barça wala Barsaq. Mhm. loolu moo tax tey jii ñuy dem Mauritanie ñu di leen fetal. Mhm. alors que Sénégal géejëm wax dëgg yàlla am na jën. suñ organiser suñ population sous forme de coopérative. nga xam ne parce que ñoom ñëpp ay bokk lañ. parce que particularité yi ñu nag ñu nekk ci jën mooy ay bokk lañ. suñu leen organiser ñu am ay coopérative am seen usine. am seen i camion frigorifique. ñu tabax ay ay marché centraux ci biir réew mi ñu dem di fa yóbbu jën yi mhm. je crois loolu bu ñu ko defee ñoom napp bi ñuy napp un daañ mhm. moo ci ëpp moo ci ëpp dara parce que ñi ma la nekk bitim réew mhm. lu ñu napp bitim réew lañ ko yóbbu même borom ñu napp bitim réew lañ ko yóbbu alors que waa réew mi bu ñu leen organisé lu ñu napp ci biir réew mi lañ yem suñu demee nag ba réew mi soxla wu ñu a jaay li nga xam ne moo ci ëpp bitim réew kon encore une fois napp gi moom dafa laaj organiser waat def les états généraux de la pêche delloo pes gi ci pêcherie mhm. te génne ko ci loxo ay fonctionnaire yu ministre de la pêche wala ay politiciens loolu dañ ko jo loolu dañ ko dañ leen cee war a génne ba mu tamit parce que nag delloo mbay mi ñi nga xam ne ñoo ko moom ca euh, napp gi ñi ko moom. dëgg la ñu jël ko ci ligne bi asalaamaaleykum allo salaamaaleykum. ñu lu mu mel ni auditeur boobul dem na euh, euh, honorable euh, ñu des ci ba tey it ci wàllum économique bi gis nañ ni président de la république bu muy toog diggoon na ñi nga xamante ni ñooy wàllu ñooy yore visiteurs yi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi ni brut or brut boobu nga xamante ni moo nekk ca Sabadola euh, dinañ fexe nu ñu ko taxawoo saytu ko diggoon na leen tamit li nga xamante ni mooy euh, ay comptoir bisières yi te tey it gis nañ ni ba tey loolu ñu ne dara sotteeku ci coronavirus bi gis nga li nga xam ni comme impact yu mu def te gis nañ ni wàllum liggéeyum or li nga xam ni moom la jural mën a jural am réew ci am koom tey gis nañ ni ci suñu réew mi bëgg nañ lu or tey moom toujours it mu ngi euh, imposer nit yi ni nañuy jëfandikoo li nga xamante ni mooy consommer euh, local bi est-ce que tey jii nii loolu su ko taxaw woon or bi ñuy jëggaani di or import importé bi importé bi nit yi duñu ko teg ki suuf jëfandikoo li nga xamante ni moom la suñu doomi réew di euh, euh, liggéey njëriñ bi mun a dellu ci askan bi xam nga soxna Amina dama la wax sax ci bi reconstruction bi mujj bi ñu koy defaraat daam lu ñu ci lu ci président la dugal mooy ne maanaam les ressources naturelles maanaam li li ne ci biir suuf suufu réew mi mhm. ak li nekk ci géej gi mhm. sénégalais yi ñoo ko moom mhm. loolu nag jàpp naa ne matuwaay yi ñu waroon a jël pour maanaam taxaw dëggal ko. Mhm. dafa am lu ci des c'est vrai président waxoon na ne dañ nañ fexe ba ñi nga xam dañuy tëgg ci réew mi. Mhm. suuf or bi ñuy jëlee ci biir suufu réew mi daañ ci jot loo xam ne ñoom daañ ci mën a liggéey. Mhm. waaye bu ñu ko xoolee wax dëgg yàlla des na. lool nag man jàpp naa ne ñaari direction moo ci jar benn bi. ñi nga xam ne ñooy tëgg. war nañ leen a organiser. te bañ leen a bàyyi rek kenn ku ne jubbu boppam. bàyyi kenn ku ne jubbu boppam. du ñu mën a attan jënd or bi nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy génn ci réew mi kon jàpp naa ne ñoom tam. Mhm. war nañoo mën a créer ay ay soit coopérative wala centrale d'achat boo xam ne. Mhm. ay banque daañu leen mën a jàppale bu ko defee or bi jóge ci Sobadola li nga xam ne moom la ci Sonaga soxla lépp daañ ko mën a jënd centrale d'achat boobu dina ko mën a jënd. Mhm. di ko jaayaat ñi ci bokk muy ñi tëgg ci réew mi ñu di ci liggéey. maintenant su fekkente ne nag dem nañ ba li ñu am li ñu soxla ñoom ñu jël ko ñi nga xam ne ñoo cay liggéey ñu mën a yóbbu li ci des bitim réew je que ñaari direction yooyu bu ko defee benn Euh, or bi maanaam ñi nga xam ne ñooy liggéey or Sénégal daañu am luñ ci def parce que nag Sénégal moom bokk na ci réew yoo xam ne xarañ gi ñu am ci or moom bëriwul réew yu ko am xarañ googu nag dañ ko war a boole ak organisation ñoo am ay centrale d'achat yoo xam ne ñoo ñoom ñoo koy bokk parce que li ñu naan doo euh, mbooloo mooy doole suñu amee centrale d'achat bu ñu bokk daañu banque yi daañu mën a jàppale bu ko defee képp ku gas or ba pare ñu xool tonnage bi ci Sénégal soxla ci liggéeyam centrale d'achat bi jënd ko di ko jaay di ko joxe ñi nga xam ne ñoo bokk central bi ñu di ci liggéey ñoom itam ñuy fay. Mhm. je crois que lu mel noonu moom bu ñu ko defee. Mhm. un mhm. ñoom ñuy liggéey ci or bi daañu ci daañu ci am seen wërsëg. waaye aussi day tax la nga xam ne dafa nekk ci construction bi te ne ressource naturelle sénégalais ñoo ko moom. su boobaa ñu gis seen bopp beneen bi ci des aussi. jàpp naa ne ñi nga xam dañuy eb dañuy dañuy gas or di ko jaay bitim réew. Mm-hmm. waroon na fiscalité bu ñu def boo xam ne dañ ciy créer école boo xam ne dañ ciy jàng jàngal nit ñi ni ñu tëggi ci ni ñu tëggi mm-hmm. ak wurus. Mm-hmm. je crois que loolu parce que Sénégal boo xam ne ñi fi jàng lépp ñi ko mën. ci seen mbaarum maam wala seen mbaarum lañ ko lañ ko jàngee. or man jàpp naa ne war nañoo gën a moderniser. jàng mi ba wut ay école yoo xam ne dañ ciy jàngal nit ñi nan la ñuy tëggee wurus ak nan la ñuy tëggee xaalis. je crois que loolu mënees na ko génne aussi ci li nga xam ne moom mooy génne ci ci ci mbirum or bi bi des en même temps que li ma wax ñu ut benn centrale d'achat mais aussi ñu maanaam état bi jàppale ñuy tëgg ñu am matériel ultra moderne boo xam ne sénégalais yi dañ daañu maanaam ñoom daañu mën a defar or bu mel ne ba ñuy importer bitim réew je crois que loolu bu ñu ko defee léegi tey euh, ñoom jafe-jafe yi ñuy euh, dund dañ ko dana wàññeeku jërëjëf am na solo allo salaamaaleykum waaleykum salaam soxna si na nga def waaw bi ñu ngi lay ziyaara bu baax a baax alhamdulilah ñu ngi am mbégte contentement sa dugg si bi ak fooy ootee waaw Seydina Omar la maa ngi mari. Seydina Omar maa ngi lay ziar bu baax nuyu waa Maristes. alhamdulilah. waaw di nuyu ci honorable moomu li may wax na solo. dëgg la. bala ngay xam ne am na solo moom askan bi lay waxal ndax boo duggee ci réseaux sociaux vidéo yi ñu fay commentaire ngay xam ne daal askan bi moom ñu ngi koy déglu macha allah aha askan bi moom soxla nañ ko leen loxal waxal ak fu réew mii toll jafe-jafe jafe-jafe doy na macha allah aha ndax lu may wax ci affaire suuf si mooy waaw Euh, mën naa ne bu li ñuy wax borom dara ji daal ñoo koy assumer ndax. Mhm. tey lii may wax ni ñu dëkk Kër Massar xam ne lu may wax. dëgg la woon pël boobu. dëgg la ndax de ay hectares yi hectares dañuy gis yoo xamante ni daal yii. Mhm. ñu ne lii lay wadd moo ko moom dañuy gis beneen wet bët am na li nga xamante ni dañuy gis ñu ne li Moustapha Niasse moo ko moom. Mhm. ay hectares. ñu jël ko aat ci moo ko pare miiré ko nag bàyyi ko. dëgg la am na Sénégal yoo xam ne ñu demee ne ci sama classe sama classe bi nekk ci réew mi. Mhm. ah. Mhm. ak ñoo xam ne amuñu amuñu parce amul mandat yàgg nañ ci location bi daal Sénégal am na ñoo am na ñoo xam ne yàgg nañ ci réew mi ah, nga xamante ne bëgg nañ ci ñu tax mais ko am. dëgg la mais loolu daal war warees na fee jeex. Mhm. ndax réew mi ñëpp ko ko. dëgg la ndax hectares yu ñu jël euh, yi ñu miir ko bàyyi ko foofu xam nga loolu tamit euh, loolu ñoom yan condition lañ ko moomee ndax ñu moom dañ ko faloon pour mu defar réew mi. xam nga mooy ma la wax borom dara ji daal soowul suuf li ñoom ñoo ko waral. dëgg la en tout cas daal état bii fi nekk daal loolu. Mhm. warees na ci lañ def daal dimbale askan bi ndax sama classe bi moom dañuy wax rek. beneen bi tamit mhm. euh, mhm. ni euh, ma jox a misaal Italie. waaw Italie feebar bu mu fa duggee. ñu demee ne 15 jours ay 10 jours yooyu ay 1000 nit pour pour man ñu ne fàtt. feebar ba faat na leen. dëgg la léegi Sénégal fii ñu ngi wax ne feebar feebar la am na fi 3 mois jëm 4 mois. Mhm. ñu ngi yàlla mu ñu suturaal ñu ñu ngi toll ci ay wàññi. ay mhm. bët bi set ñaar wala ñett. Mhm. ñu toll ci 60 quelque morts. te moo tax mën a la. Mm. Europe ak Afrique pour man seen climat bokk ni ñuy dundee ba pour man moo tax man yenn communication yaa xamante dafay tiiral askan jëmale ko ci faire pour man jaru ko. Mm-hmm. kon loolu ñu ngi sant yàlla bu baax. jërëjëf kon nag pour man bépp décision boo xam ne président jëloon na ko. Mm-hmm. jëmale ci feebar bi. pour mm-hmm. man bu nañ ko bàyyi rek moom jël na pour mën a dund ak feebar. jërëjëf. waaw yooyu daal nañ ci bàyyi xel daal. ñuy ñaan daal parce que si réew mi si li nga xaw muy xiif mhm. waaw dund gii ñu waxoon parce que ñu bëree bëri gisuñu ko pour man pour man yenn décision yi ba xamante ne day not nit ñi pour man jaru ko ndax loolu day tax nit ñi di manifester ak démb am na géejawaay dëgg la te lii mënul continuer dëgg la di la jaajëfal nga fàttali ñu tur bi dafa mel ni dem na ñu di ko jaajëfal bu ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax moom mbokk moom nga xamante ni moo dugg si euh, di rafetlu macha allah participation am na solo ci li nga xamante ni moo di débat bi euh, honorable euh, ñu desa delluwaat tuuti ci wàllum éducation bi ndax dafa xaw am lu nga xamante ni il faut tamit ñu leeralaat ko ndax président aussi bi mu waxee nañ delluwaat ci école yet te it sànq si biir wax bi nga waxee nañu delluwaat ubbiwaat njàng mi fàtte ni njàng mi aussi tamit nekkul école yi ndax am na ñoo xam ne ay daara lañu woon ñooñu aussi tamit dañ leen a fermé wu woon euh, ñooñu tamit tey jii nii ndax jàpp nga ni ñooñu war nañoo war a reprendre ba tey. gone yi taxawaalu ci mbedd mi di dëkk ci mbedd mi maanaam dama wax ne mbedd moom du kër gone. dëgg la gone moom këram du mbedd. Mm-hmm. dañoo war a def leen naa nag daara yi nga xam ne. Mm-hmm. parce que aussi da ngay ñëw parfois ñu ñëw fekk daara. Mm-hmm. ñu tëj ko. génn ña fa nekk yóbbu leen feneen dajale leen fa. te sa xëy na duñ leen jàngal. te sa xëy na dund bu ñu fiy dund du du gën a neex dund daara ji loolu jàpp naa ne. xëy na mënees naa comprendre ci départ ba ne tiitaange ko war loon waaye nag ginnaaw yu fi demee nii li ma jàpp mooy a bi li ma war def mooy daara daara ju ne. sëriñ daara ba fa nekk. ñu delloo koy dongoom. te jàppale ko bu mën leen faa tëyee. benn ci lu ñuy dundee. ñaar ci wàllu set. ñu jox ko ay saabu ak raxasukaay loxo. jox ko ay gel ak masque yu gone yi takk. je crois lu mel noonu. kon bu ñu ubbi jàng mi ñëpp lañ parce que en réalité man su may wax jàng rek. damay wax toujours ne Sénégalais bu fi juddoo ci réew mi. ñaar yi ñaari àq yi Sénégal yoral na la ko. benn war nañu laa jàngal sa diine ba nga xam ko. maanaam nga xam li la yàlla digal ak li la yàlla tere. war nañ laa jàngal ba nga xam àdduna ba man koo jàngoonteeg moom mhm. ñaari ja responsabilité nag état ci boppam la jëkka dal door a dal ci keneen mhm. yar nag moom waajur moo koy def doomam waaye jàngal moom mhm. état moo war a jàngalu askanam kon ma jàpp ni ma gëmee ne li bokk na ci li ma gëm boo gisee sax waxoon naa la ne problème bi du sauver année blanche mais sauver école sénégalaise maanaam delloo école bi réew mi parce que école bi fi nekk ba léegi mooy école bi fi woon dëgg la te tubaab bi ñoom dem nañ seen yoon kon ñun waratuñoo garder école bi. Mhm. léegi li waroon école Sénégal waroon ko tey mu fexe ba benn. Mhm. Sénégalais yi di jàng seen alxuraan. Mhm. di jàng seen addis xam ko ba parce que nit ñi bu ñu xamul seen diine. ab kàccoor bu ne mën naa jër fëkk seenum xel ba jariñoo leen. ci te diine tax. te loolu li ko mën a dindi rek mooy nit ñi xam seen diine. bi ci des mooy war nañoo fexe ba tey sénégalais bu fi juddoo bu ne. bala ngaa doon mag làkk wi nga xam ne moom nga nàmp nga mën koo bind mën koo liir. parce que loolu dafa bokk ci lii nga xam day jox aw askan boppam. bi ci des mooy école bii nga xam ne moom lañ doon na ci tubaab yi moom. jàpp naa ne dafa laaj nañu tegaat ko fi suuf nag tabax école boo xam ne école bu Sénégal lay doon école boo xam ne bu ko Sénégal maanaam lépp luy taxaw taxaw sénégalais matub sénégalais. soo ñëwee da nga ko fa mën a jàng jàpp naa loolu moom la mais nag kon nag ñi nga xam dañoo taa daara yi ñu tëjoon pour mën na ko gouvernement bi tijji. Mhm. te jàppale sëriñ daara ya ba gone yi a toog ca école ba ca daara ya di jàng. Mhm. maanaam ci lekk ci mhm. wàllu set ci wàllu masque su ko defee ñu continuer seen liggéey waaye nag wax dëgg yàlla euh, yóbbu leen noonu rek bàyyi leen ci àll bi loolu moom jàpp naan du du du du mooy liggéey soo gisee may insisté nañu bàyyi xale yi ñu jàng parce que tey ji lan moo xew boo demee xale yi ñu ngi ci mbedd mi di football ñu ngi ci gi di di xeex ak policiers yi waaye waaye yaaxayti mu la bu ñu naree def parce que nag am coronavirus boole ci njàng moo gën am coronavirus ci football wala ci dem ci géej gi dëgg man loolu laa gis ginnaaw mënuñu leen a tee ne ci mbedd mi di taxawaalu mm. mënuñu leen tee dem géej di fo mm. mais nañ leen yóbbu ñu jàngi parce que nag wopp ci école bi moom moo gën wopp ci mbedd mi dëgg la am na solo loolu laa rafet na am na solo mm-hmm. euh, honorable gis nañ ni président de la république euh, bi muy taxawal euh, état d'urgence bi dañu ko voté loon li nga xamante ni moo di loi d'habilitation loolu nag ci diiru ñetti weer gis nañ ni boobaak tey comme nomination yi ni ko fi imam waxee am na ci ñu muy yëgal di wàcc ci loolu te it euh, yaakaar am na ci ñu nga xam ne nee couvre-feu bi stratégie la bu nga xam ni teg na ko pour xool natt askan bi tey jii nii li ñuy laam-laamee dina mën a nekk wala du mën a nekk muy troisième mandat wam tey su ca eggoon population bi fépp bu naka la mën a jëflante ak ñoom am na ñu koy wax euh, yow tey jii nii nga xam ni macha allah euh, population bi ñëpp rafetlu nañ li nga xamante ni mooy sa taxawaay di fit bi ak njàmbaar bi tey suñu doon président de la république euh, indi na li xamante ni mooy troisième du mandat troisième mandat lan moo ci gis-gis ak lan moo ciy nekk sa taxawaay. waaw xam nga man di jàpp naa ne bokk na ci am na lu mu ci doon seet ci état d'urgence bi ak couvre bi lu dul aar doomu aadama yi. parce que dama wax toujours ne couvre état d'urgence yàgg état d'urgence yàgg na am Sénégal. Mhm. président Senghor def na ko fii président Abdou Diouf def na ko Abdoulaye Wade na moom defu ko. Mhm. waaye état d'urgence xam nañ ko. maanaam mhm. loolu la ko taxoon a jóg mooy eh, waa réew mi ñoo daan ñoo doon xeex Senghor mu def état pour duma ci élection yi defoon na état d'urgence parce que booba daa dafa jógoon mhm. daa am ñu jógoon di ko xeex moom itam muy fayu ci wàllu gànnaay gi waaye puis état d'urgence bi mm. li ko tax a jóg mooy aar nit ñi ci wopp mhm. kon police warut am même comportement bi ci ca bu jëkk ba ak bu mujj parce que bii pour aar nit ñi moo ko tax a jóg mm. bële pour aar ab régime moo ko taxoon a jóg mhm. kon jàpp naa ne li ñu doon def di dóoree que duma mm. amu njëriñ maintenant nag su fekkente ne da ngaa dem ab diir nga xool xam ne benn mm-hmm. état d'urgence bi Mm. nombre yu ñu wopp mm. wàññiwut nombre yu ñu dee kon da xam ne état d'urgence bi li ko taxoon a jóg deful amu ko parce que li ko taxoon a jóg mooy waa wa endiguer la propagation maanaam wàññi ni jàngoro tasaaroo ci biir réew mi mm-hmm. te loolu moom jàpp naa ne résultat bi maintenant nag su fekkee dañ doon natt réew mi ba xam seenu muñu waay fu mu toll mm. li xew ba ki démb war na koo jàngal muy gone yi génn ci mbedd mi ca Touba génn Njaarim génn Tivaouane génn Kaolack génn Ndakaaru te bu fekkoon ne bis bëccëg bi mu woyefale woyefalu woon ci guddi gi réew mi dina tàkk mm-hmm. kon jàpp naa ne loolu na ci jàngate ne mm. Sénégal yi di naam mën nañu muñ mm. waaye nag boo tegee ba seen muñ jaay muñ mu ñu koy jeexal daañu la jaay seen bakkan mm-hmm. kon encore une fois bu fekkente ne troisième mandat moom daa na ci xelam mm. booyee bu mu teg ko suuf parce que dana gis lu raw fopp li amoon bëkk démb mm-hmm. kon yow àndoo ci troisième mandat bi moo Mm-hmm. du man maa koy bañ constitution bu Sénégal mais suñu constitution bi moom bu fekkee ci la ñuy wékk moom gis nga ni <laughs> heure bu ñu ko bëggee kii moom déedéet déedéet xam constitution moom li xam nga Macky mm. bi ci nekkoon daal limité woon mandat yi ci ñaar loolu Ablaye indi ci constitution bi mm-hmm. deux ci eh, bi mm. ci lañ def ci constitution président am lu ëpp ñaari mandat mm-hmm. président Macky Sall bi muy prêté serment en daa waatoon ne du def lu ëpp ñaari mandat kon affaire ñaari mandat ñetteelu mandat boobu mënta nekk ci côté Macky Sall. 2024 la mandaam lay jeexal ci mandaam di jeex mu dem yoonam waaye mu mënutul nekk di candidat mënutul nekk président la République Sénégal bu 2024 ak seen. xëy na la ci jàll bu demee ba beneen mandat ñëw bu ko neexee mën naa disaat bu bëggee. Mm. waaye moom moom mandat bi bu jeexee moom. Mm. fokk mu joxe leng yi keneen. kon encore une fois googu moom gëm naa ne moom mi ngi xelam parce que ku ku ne mënu mu rëq sa ndigg parce que man ci loolu laa jotee moom mhm. euh, Sori Kaba ci loolu la jotee moom mu dàq ko waaye même boo nee woon fii ni mën nga am téeméeri mandat du la wax dara mhm. kon mel na ne mi ngi cim xelam mhm. waaye nag booy mu génn ko ci ba tey waxagu ci wax bu leer donc lu ma la wax maa ne xam ne xam ni muy xam ne am na lu mu bëgg waaye dama laa wax ne loolu moom bay mu teg ko suuf parce que lii xew bëkk démb tóor tóor la rek Euh, mbir yëpp feeñagut bis bu duggee ci troisième mandat dina gis lu gën a tàng li xew fap bëkk dem mm-hmm. parce que nag Sénégal yi naam ay muñkat lañ mm-hmm. waaye seen muñkat bu jeexee ñu taxaw te Ablaye Wade waroon na ko le 23 join Sénégal yi waroon nañu Ablaye Wade nu seen jikko am te kon nit mag la baaxoon na defal na ci réew mi lu bari mm-hmm. ba mu leen bëggee dugal ci lu ñu xamul dañoo taxaw jàkkaarloog moom mu deñ kon président Macky aussi bu mu àggal Sénégalais yi foofu. jërëjëf honorable euh, sa avenir ci politique ginnaaw bi nga xamante ni génn nga ci parti bi di euh, benn bokk yaakaar wala APR euh, tey jii nii ak it macha allah fi nga ci jote jaar yëpp tey sa ëllëgu politique boo ñu ko doon wax lan nga xalaat ni tey jii nii moom la war a doon. waaw ëllëg moom ginnaaw man bu mi ma sol sax xaw ma maa koy summi sama boppam déet c'est-à-dire maa ma bu ma jógee ci studio bi ndax danaa àgg sama këram déet mhm. danaa ma wax la ci sama sama ëllëg mhm. li nga xam daal moom la fa yéene mhm. te lenn du teem a def ko kenn du teem a def ko mooy benn un mooy di wax wax ak askan wi cest à bu ma xalaatee lu baax danaa ko wax askan wi di waxal askan wi su ma gisee loo xam ne dañ koo teg askan wi lu jaaduwut wala loo xam daa amal njariñ danaa ko waxal danaa waxal askan wi donc wax ak askan wi ak waxal askan wi moom loolu moom fas naa ko yéen di ko def ba keroog ba ma euh, euh, dugg ci suuf maintenant nag ñu man alliance pour la république ci laa bokk mooy parti bi 2009 mhm. bi ko Macky Sall créé laa ko fekk si mhm. ba ma fay jóge itam dama bàyyi PDS boobu maa nekkoon inspecteur général du PDS. Mhm. nekkoon ci cabinet président Abdoulaye Wade bàyyi ba ma gisee ñu teg Macky Sall loo xam ne jàpp naa ne du yoon ma bàyyi ko fa. Mhm. ñëw ànd ak moom. Mhm. ah bi ma àndeek moom itam nag ba ba ba mu dem nekk nekk naa fa député nekk fa président de groupe nekk fa chef de cabinet waaye nag dem naa ba ay kaddu su may kaddu yu ma yëkkati. xëy na néexu ko. te kàddu ya mooy ay troisième mandat waru ko bëgg ay lu mel ne Franck Timis bi ñu joxoon pétrole Sénégal waru ko jox ci loolu lañ commencé amee jafe-jafe ah mu mu dàq ma ci cabinet ginnaaw ba bi ñu créé suñu mouvement ñu tuddee maa ngi ko taxaw suñu affaire aussi mu daal di ma génne ci parti bi ne man génne pour génn ma ci day yoon woo xam a jaar pour man ma tax ma jàpp ni dàq googu lu amut la waaye euh, benn bi dama koy dama koy dama ci tegg sama tànk waaye li ma fas yéene mooy su mbas mi jàllee moom mm. ah, maa ngi ñaan yàlla mu fekk nu fi ñun ñëpp su boobaa xëy na daanu seet nu nuy war a gën a taxawee ci réew mi waaye daal li am solo mooy mm. te moom laa jàpp ne man mooy politique mm. mooy di wax ak ak saw askan mm-hmm. di waxal ak saw askan loolu moom defe naa ne di waxal sa di wax ak saw askan ak di waxal saw askan. Mm-hmm. loolu moom jàpp naa ne moom ba ba muy faatu ci loolu laa ko fas yéene yéene defee. jërëjëf yal na yeex mm. euh, honorable euh, tey jii nii euh, sa kàddu gu mujj bu fekkonte ni da ngay tàggatoo yan sensibilisation ngay gën a sensibiliser nit ñi doon te sa waxtaan yëpp presque ci sensibilisation nga ko def pour jàngoroy coronavirus bi lan nga leen di dolli. Ah. tey it bu fekkonte ni am na leneen loo xam ne nekkoon na ci sa xel pour nga war kon ko wax te samay laaj egsi wu ci su boobaa lan lay doon. li may wax rek mooy d'abord euh, jaale ñi fi gaañu ñëpp seen i mhm. wajju ja seen i bokk xaare leen àjjana mhm. te yàlla mi nga xam ne dara taw ko mu dimbali Sénégal ak àdduna ba jàngoro ji jóge fi mhm. waaye sànq dafa am ku ma dégg lu mu wax ku am solo ci ñi doon wax ne gis nga mbas mi li mu rey ci juróom benn ci téeméeri fan yi euh, maanaam tëli bi tëli bi li muy rey moo ëpp li bi mbas mi rey li fi cancer di rey moo fi ëpp li mbas mi rey mhm. li fi sibbiru di rey moo ëpp li fi mbas mi rey mhm. kon encore une fois li ma jàpp mooy mhm. li gouvernement bi communication bi mu war def mooy mën nay bu maanaam bu ñuy communiquer rek nañ wax nit ñi li nga xam ne moo leen di aar ci mbas mi jërëtul ñu naan dangam wopp na ñàngam test nañ possible pour man di ko def tous les dix jours à dix heures ce n'est pas nécessaire maintenant communiquer na mën na ko def ne test nañ nangam nangam fa faatu nañ nangam wér loolu mënees na ko wax waaye li ëpp solo ci waxu gouvernement bi moom. Mhm. ak ci kilifay réew mi. Mhm. mooy naka lañu war a def ba mën a aar askan bi ci coronavirus bi. ci mhm. wàllu raxas loxo. ci wàllu gel. ak ci wàllu takk masque. kon encore une fois may fàttali sama bopp di fàttali jëpp. ni jàngoro ji moom képp koo xam ne fexe nga ba say loxo du ca takk mm. maanaam di raxasoo saabu wala ngay laal gel mm. képp koo xam ne fexe nga ba du jaar ci sa gimiñ mm. wala sa bakkan dugg ci yow képp koo xam ne fexe nga du jaar ci sa gimiñ wala sa bakkan gën dem ci keneen yooyu yooyu buñ ko buñ ko buñ ko tënkee rek yàlla mën nañu li ba léegi tey jàngoro ji jóge bi su ko defee nag may sàkku ci président public affaire état d'urgence bi mu teg fi suuf te féeg le 30 bi nit ñi dem jàngi te wutal Sénégalais yëpp masque parce que 1000 milliards yi mu laaj pour mm. xeex jàngoro ji moo ko taxoon a jóg mm. na ci jëndal nit ñi loo xam ne dana leen mën a musal ci jàngoro ji la leen mën a nag pour le moment li ñu ci xam mm-hmm. mooy masque ak di raxas sa loxo mm-hmm. bu ko defee nit ñi dem liggéey waaye nag bu fekkente ne topp nañu maanaam tiitum coronavirus bi ba bàyyi ba koomu réew mi màbb su boobaa lu gën a garaaw fopp coronavirus dina dina fi ñëw parce nag pour le moment moom nañ sant yàlla coronavirus moom dangar ji ma am ci Europe amu ko Sénégal ginnaaw dangar ji am ci Europe amu ko Sénégal mhm. kon ñun war ñun ñoo war a seet lu ñu mën a muccee ci moom rek mhm. waaye wax dëgg génn tiitaange ji moom mhm. jaratu ko loolu nag nañ ko sant yàlla subhanahu wa taala parce que nag bu dee ay hôpitaux européens ñoo nu ko ëppale bu dee ay baax hôpitaux ñoo nu gën a baax hôpitaux bu dee ay docteurs ñoo nu ko ëppale foofu teewul nag ñoom ñoo nu ëpp ñu faatu parce que tey jii lii dee ci benn fan ci France wala wala Espagne mooy moo dee ci téeméeri fan ci Sénégal kon wax dëgg yàlla ñun mën nañ ci bu ñu tiit benn tiitange bi encore une fois daal maa ngi fàttali waa réew mi rawatina ci ñu mag ñi sama classe gi nañu fexe ba di wàññi ñun suñu daa suñu tànk suñu génn mais ñuy raxasoo saabu fu ñu toll di takk masque. su ko defee yàlla mën nañu cee musal parce que jàngoro ji moom ci mag la gën a ay bu ko defee nag xale ji aussi. ñu wutalee ni masque sañ dem liggéeyi. mbay mi président la bi bàyyi ko xel bu baax a baax ñu wut un programme que nag li daan jógee bitim réew ci moodu moodu yi du ñëwati. li daan jógee bitim réew ci tourisme dootu ñëwati. li daan jógee ci bitim kon li ci des. mooy suñu ñun ñu génn ci ci kong yi. ñun bopp ñoo war a takk suñu ndigg. ci wàllu mbay mi ci wàllu sàmm gi ci wàllu napp gi te bañ ko teg ci loxo di ñaan ñaan ñu baal nu ay bor du duñu ci génne mm-hmm. kon encore une fois daal maa ngi leen di gërëm mm-hmm. ah di am mbégte lool ci ñëw fi mm-hmm.

ko gërëm ko moom honorable mi nga xamante ni euh, tey mi ngi fi toog te macha allah comme ni mu ko waxee woon ci euh, tàmbali bi yaakaar naa ni mboolem kàddu yi nga xamante ni yëkkati nga ko euh, la ñor te askan bi mu yàggal taxawaay bi dëgëral la yokk kàttan gi ak wér gi ba lépp ni say mébét la ci askan bi yàlla mun la ko eggaleel naka noonu la di sant kilifa kër bi nga xamante ni tey jii temps bi moom moo ñu ko may ba ñu fi mën a E, indi lii yëpp waxtaane ko fii di gërëm di sant ñi nga xamante ni ba ñu yëkkatee suñu kàddu tey ñi ngi ñuy teewlu ak ci fuñ munti nekk rek moo xam ci réseaux sociaux yi la wala mu nekk ñu nekk ci biir kër yeeg ñëpp ba ci nekk ci yoon yi ñu ngi leen di sant bu baax baax a baax te di leen di gërëm tey wax ah, li may faral di wax képp ku yëkkati sa kàddu di wax ki nga xamante ni moo lay déglu kooku moo la dooleel ba tax na amuñu seen fay niki noonu laay sant di gërëm sama rakk ji di Bassirou Cissé bi nga xamante ni ah, moo moom tëyeel technique bi ak mboolem bi équipe bu Afia FM Dakar 93 point 0 di jégglu rek euh, comme ni nga xamante ni noonu la ko honorable waxee lépp li nga xamante ni rëq na fi euh, mata di doomu aadama rek la waaye lépp li nga xamante ni jub na jub na fi euh, coobare suñu la ñi sant yàlla bu baax ak mbaaxam mi nga xamante ni moo ñu mayoon kartan pour ñu toog fii ngir mun a waxtaane lépp te lépp ñu jublu woon ci lépp loo xamante ni dafay defar te lépp lu nga xamante ni tamit day dellu njariñ ci askan bi te di wax rek incha allah ci beneen samedi ci beneen numéro ci beneen thème ak beneen invité incha allah leen ca lu wax asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabil alamin lu tax ne réew mi lépp ñu changé lu tax ne yéen mbokki auditeurs yi safoo rajo bi di Afia FM Dakar seen émission fàttali fësal yéene dalal monsieur Moustapha Diakhaté ancien président du groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar ci samedi ji lay am yemoo fukki fan ak ñett ci weeru juin li ko dalee ñetti waxtu bu feggee fan fanweeri minute jàpp juróom soxna Aminata Diop fësal yéene leen ko présenté ñu nar a waxtaanee jàngoroy coronavirus bi ñetti weer yi mu def ci réew mi impact yu mu def sur le plan économique. économique ak sur le plan sanitaire fii lay ame sur 93 point 0 kon nag mbokki auditeurs yéen it mën ngeen indi seen i xalaat jaare ko ci bu mu jokkoo bi di 88 628 05 05 88 628 05 05 Afia FM du musa tay yi di leen gunge ci xeex jàngoro bi di Covid 19 ngir ñu mun ko daan.